إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وعدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te mu sëkk ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala sunu jotaay bi yàlla boole ko ci jotaay yi mu nangu ñu fas yéene fàttalante ak yéen ci tomb bi nga xam ne moom mooy dooful iman mun nañu wax ne mooy ngëm yàlla gu yambare wala ñu ne ngëm yàlla gu nasax wala ñu ne ngëm yàlla gu doye ci boo ci mënta jël ci yi ñu wax mën na koo tekki mu nekk loo xam ne nag feebar la bu dal jullit yi tey mu tasaaroo ci biir kër yi ci mbedd yi ci liggéeykaay yi daal di matale sëkk société bi foo tourné nga dégg ñépp di ko jàmbat ñu baax ñi ñu bon ñi tout le monde foo jaar rek nga dégg nit ñi naan la man de yi dama yëg ne sama xol bi dafa wowtaay ñenn ñi nga dégg ñu ne laa ajidu lazzatan lil ibadat man de jaamu yàlla gi may jaamu yàlla amul amu awma ci bànneex xam ngeen jaamu yàlla dafa am cafka ni ngay tiimee lekk lekk ko mu am lu muy saf ci yow jaamu yàlla noonu la amee bànneex noonu la amee cafka mais ñu bëri ci ñun dañuy rukkoo sujjóot jàng alxuraan woor ñu duñ yëg dërëm dañ koy def nii rek pour la forme amul dara lu ci neex lu ñuy yëg loo xamante ne dina leen tax bu ëllëgee loolu waxtu woowu bu jotaatee bu ñu koy def mu jaaral leen daw wala waaxu wala mu jaral leen place ba ñu taxawoon ñu taxawaat fa nga dégg ñenn ñi ñu ne la asaru asuru anna imaani fi lxadid man de dama yëg ne sama ngëm yàlla gi vraiment dafa wàcc amatuma ci ngëm yàlla dara wala bu ma ci amee wàññeeku na nga dégg ñenn ñi ñu ne la laa ata asaru bi qiraati alquran man de alquran moom bu ñu koy jàng wala ma koy jàng sax du ma yëg dërëm nga dégg kee mu ne la aqa'u fil ma'siya bi suhula man daal mënuma téye sama bopp fu ma toll maa ngi def ay bàkkaar kon soo duggee ci biir xeet bi ci société bi ñu nekk ak na ñuy yëgee feebar bi muy feebaru ngëm yàlla bu na sax ku nekk rek am nga nu mu la dalee waaye xam ngeen ne yii ñu wax léegi xool kii nga xam ne day jaamu yàlla te jaamu yàlla gi du ci yëg bànneex kii day jàng alxuraan alxuraan bi muy jàng du yëg alxuraan lay jàng pour moom daal ay lettres yu mu tiim di wax la jeex na dina respecté ahkaamu tajwid respecté lépp jàng normalement alxuraan bi ñu ko waxee waaye du jeexintal ci moom xool kii di julli te julli gi du ko yokk dara xoolal kii ma ngay zikr waaye du ko yokk dara xoolal kële mu ngay déglu waxu yàlla subhanahu wa taala mu ngi déglu waxtaan mais waxtaan bi du ci jële dërëm kon bu fekkente ne feebar bu ñu war a faj tey suñu xeet ci umma bi alamul islaam yi feebar bu ñu war a njëkk faj tey mooy dooful iman mooy ngëm yàlla gu na sax lu tax gaa yi njëkk yi lan lañ ñu rawee mooy ngëm yàlla alxuraan baa ngi nii sunna yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi texte yaa ngi nii jógewu fi lan moo tax ñun mënuñu mel ni ñoom lan moo tax ñun mënuñu mel ni ñoom c'est parce que ñoom nañ doon mel ci alquran nañ doon mel ci jaamu yàlla nañ doon mel ci zikr nañ doon mel ci mbir ya bañ ko doon def ak ñun nuñ koy defee du benn yàlla dafa ci alquran mu ne alquran bi démb bu ñu ko doon wàcce ci gaa yi wa iza tuliyat alayhim ayatuna zaadathum imana da leen di yokk lu muy dégg alquran bi wàcc ñu koy jàng da leen di yokk ñun bu ñu déggee tey ñu koy jàng ci benn kaset wala benn xaari di ko jàng ñu nag ñee duñ benn kon bu fekkee laaw am na feebar bu ñu war a faj kenn ku nekk nga war a dugg sa biir néeg nga bañ a xool sàmba nga bañ a xool demba ngay xool li la manqué feebar bi yow ban nga ci yor bu fekkee ne doo yëg jaamu yàlla gu neex bu fekkee doo jàng alxuraan du jeexital ci yow bu fekkee doo zikr bu fekkee doo naafila guddi bu dee doo woor kooru sun bu dee bu dee bu dee nga xool yow lan nga ci yor nga jéem a faj yow sikk nekku ci na moom ñun ñëpp dañoo fees daal ak feebar bi ku nekk xam nga sa bopp balil insaan ala nafsihi basira walaw alqaa maazira kon waxtaane ko moom tomb bii dafa nekk lu am solo dafa nekk lu yitteel mënuñu nekk ay jullit fekk amuñu ngëm yàlla laa aqidatun illa bil aql mënuñu am pas-pas lu dul dañu am xel wala al aql illa bil iman mënuñu am xel lu dul dañu am ngëm yàlla wala al iman illa bil maarifa mënuñu am iman lu dul dañu am xam-xam wala al maarifa illa bil quran mënuñu am xam-xam lu dul dañoo jàng al quran kon lépp loo xam ne day tax ñu am ngëm yàlla subhanahu wa taala loolu lu ñu war a uti la lu ñu war a jëggaani la xoolal fii ngeen ñëw tey bàyyi seen i kër bàyyi seen i wayjur seen i papa seen i yaay seen i seen i bàyyi lépp ñëw fii lu tax pour sàkku xam-xam pour jàng gis nga noonu ngeen tukkee sànni lépp noonu la ñu war a utee imaan imaan dañ koy ut imaan boobu su ko nit amee daf koy sàmm dafay yokk dafay wàññeeku al iman yaz yazdaad wa yanqus dafay yokk di wàññeeku lan moo koy yokk mooy ay jëf yu baax lan moo koy wàññi mooy ay jëf yu bon lan mooy ñu wan ne ngëm yàlla day yokk yàlla moo ne alxuraan bu ñu ko jàngee zaadat kon day yokk kon sa fi day yokk lan moo koy wàññi mooy jëf yu baax yooyu di ko yokk nga wàññi ci sa iman day wàññeeku kon doomu ndey imaan boobu nag dafa am place muy ngëm yàlla boobu dafa am fu muy nekk fu muy placé wu ci doomu aadama fan lay nekk ci xol yonent bi alayhi salaatu salaam nee na abu bakrin saddiq rawewu leen dara lu dul shay'un waqara fi qalbi benn mbir boo xam ne dafa sax ci xolam lan la imaan yonent bi salaatu salaam nee na bu ñu jëloon àdduna bi yépp seen imaan ñu teg ko ci benn plateau ñu jël imaanu abu bakr mu ne la maalat ilayhim imaanu abu bakrin saddiq lu tax parce que dafa gëm yàlla dafa am imaan ku la ëpp imaan moo la gën a jege yàlla ku la gën a néew imaan moo la gën a sori yàlla subhanahu wa taala loola tax kon su fekkee ne loolu am na jullit bi war na góor-góorlu ba am imaan mais war na ko sàmm mu aar ko ba imaan boobu du wàññeeku Hanzala dafa toog ci kanam yonente bi alayhi salaatu salaam mu ne yonente su ma toogee sa kanam rek damay fees dal ak imaan mais bu ma demee sama kër rek xale yi soxna yi ambiance bi ree bi kaf bi rek mu ne ma vidd yonente bi ne ko wallahi bu ngeen saxoon ci ni ngeen di mel ci sama kanam bu ngeen ci saxoon ngeen continuer ci da ngeen di nuyonte ak malaaka yi yonent lan la wax Hanzala mu ne ko ndànk-ndànk ngay def ndànk-ndànk ngay léegi mu musa am xam ngeen Hanzala fu mu mujj day jékki-jékki mu ne saxaaba yi nuyu leen malaaka yi fay leen malaaka yaa ngi leen di nuyu parce que daf leen di gis direct am na keneen ku tudd xaaris yonent bi dafa xëy ne ko kayfa asbaxta yaa xaaris xaaris noo fanaanoo mu ne ko asbaxtu muminan billah dama xëy fees dal ak ngëm yonent bi ne ko xoolal baax li ngay wax nit ki lépp lu mu làyyi lu mu wax ci gémmiñam war na kaa mën a indil ay dalil yaa xaaris fa maa dalilu imaanik lii wane ne yow am nga imaan ku gëm yàlla nga mu ne ko talaqtu dunia wa staqbaltu l axira bàyyi naa àdduna jublu naa alaaxira wa qumtu layaali wa sumtu nahaari damay woor samay bëccëg su guddee may naafila ci laa nekk ba bu ma xëyee suba jàkkaarloog asamaan day mel ne maa ngi jàkkaarloog arshu rahmaan su ma xoolee sama càmmuñ day mel ne maa ngi jàkkaarloog waa aljanna ñuy kontaan su ma xoolee càmmuñ day mel ne maa ngi gis waa safara ñu leen di mbugal yonent bi ne ko raayta faltazim gis nga yoon bi de foofu la téyel mu dëgër nag balaa mu lay rëcc kon doomu nay mënuñu muus ak waane ñàkk imaan ba pare nekk ay jullit jullit bu amuleen imaan amul dara jullit yu njëkk yi raawuñu woon lu dul imaan imaan boobu ci xol la yee lay nekk ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ci xol lay nekk da koo joxoñ mu ne al imaanu haahuna bu daal def ni baaraam waaye lu ñu seetlu mooy xol boobu yonent bi ne ngëm ca lay nekk xol boobu dafa gaaw a wëlbatiku moo tax ñu tuddee ko alqalb mooy luy gaaw a wëlbatiku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xol dafa gaaw a wëlbatiku comme ngelaw nu muy wëlbatee feuille xobu garab bu wow xam ngeen loolu moom du téye amul doole nu ko ngelaw di wëlbatee di ko fowee yonent bi nee na noonu la xol di gaaw a wëlbatikoo beneen riwaaye mu ne xol dafa gaaw a wëlbateeku comme cin buy bax toll ci cent degré nu muy wëlbateekoo yonent bi nee na noonu la xol di wëlbateekoo waaye yonent yemul ci loolu dafa ne xol yi xol yi doomi aadama yi ñu ngi ci kanamu ñaari baaraamu yàlla yuqallibuha kayfa yasha yàlla moo koy tourné nu mu ko neexee yonent yemul ci loolu waaye dafa bokkoon ci ay ñaanam comme xam na ne xol dafa gaaw a wëlbateeku muy ñaan yàlla subhanahu wa taala allahuma ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala taatik yàlla yow mi nga xam ne yaay saxal xol yi maa ngi lay ñaan sama xol bi yan na ko saxal ba ma mën laa topp jàng ngeen ci ñaan bi alquran rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaban nar rabbana laa tuzig qulubana yow yàlla ñu ngi lay ñaan suñu xol yàlla boo ko wëlbati ginnaaw ba nga ko saxalee mu jóg kon xol place la boo xam ne dañ ko war a sàmm balaa muy yàqu ndax du ëfful imaan ku ko am rek muy ngëm yàlla gu yambare googu ngëm yàlla gu nasax googu ku ko am rek mooy sa xol moo yàqu ñooñu la yàlla naan fi qulubihim marad seen xol yi dañoo feebar ñooñu la yàlla naan kalla barraana ala qulubihim maa kaanu yaksibuun ñooñu la yàlla naan seen xol yi dafa xomaat ñooñu la yàlla naan summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw asaddu qaswa ñooñu seen xol yi wow nañu ba mel ni ay xeer la mu ne sax xeer yi sax xol yi sax ñoo gën a wow xeer yi mbokk yi ngëm yàlla gu nasax feebar la waaye ku mu dal man hôpital moo lay faj est-ce que nit ñeme na dem fànn naan docteur bi mën nga defal ma benn consultation quoi parce que sama xol dafa wow wala nga dem principal ah mbaa daan teg ñu ne loo fi wut nga ne non man dama feebar ñu ne waaw léegi lu man lu lay miit nga ne daal dama seetlu daal sama xol bi dafa wow parce que bu ñuy jàng alxuraan du ma ko yëg su may julli geste yi rek laay def mais yëguma dara. loolu docteur bi di wax pourtant feebar la waaye da ngay dem ci hôpital bu tudd l'islam wala nga fekk fa benn médecin bu tudd Muhammad nga ñëw nga wax ko sa feebar boobu mu bindal la ordonnance nga dem pharmacie bu tudd Alquran soo demee boo ñibbee boo naanee ay ak hadis rek nga di cocc wér yéen dégg li ma wax boo la feebar yi dalee feebar bi ma wax bu la dalee dinañ lim léegi feebar yi ci kanam bu la dalee hôpital bu tudd lislaam ngay dem nga laajte fa médecin bu tudd Muhammad Rasulullah nga wax ko li la dal ci yii dana la bindal benn ordonnance nga dem ci foo jëm ci benn pharmacie bu tudd alquran ñu jox la garab yi boo demee nga naan ay aaya lan lay jox ay aaya boo demee rek rapidement balaa ngay tëdd jëlal notice bi rek nga liir leen nga wér feebaru ngëm yàlla subhaanahu wa taala feebar boobu nga xam ne mooy doxaful imaan dafa am lu muy manifesté woo ci doomu aadama comme yeneen feebar yi nga xam ne mooy dal yaram yi feebar la boo xam ne dafa bëri tey ci xeet wi néew na ku mu dalul ci jullit ñi waaye tomb bu njëkk pour ñun ñu toog fi ñu xam dal nañ wala dalul képp koo xam ne gis nga ci yow ne dangaa gaaw daanu ci mooy yàlla al wuquuq fil maasi wartikaabil muharramaat dangaa gaaw a mooy yàlla dangaa gaaw dugg ci bakkaar xamal ne yow dangaa feebar bu yow nga fa yi ku mënul téye sa bopp sa bët yi mënoo ko téye ba doo xool lu bon sa nopp yi mënoo koo téye ba doo déglu lu bon sa gémmiñ gi mënoo koo téye ba doo wax lu bon sa loxo yi mënoo ko téye sa sexe mënoo ko téye say tànk mënoo ko téye dangaa feebar mooy boo nga dem faju ci bul fi toog naan ba xëy na non non dangaa feebar dama nga faju ji kooku mooy tomb bu njëkk mooy alwuqu fil maasi wartikaabil muharramaat am na ci doomu aadama yooyu nga xam ne dañoo gaaw a def bàkkaar wa min al usaat man yartakibu maasiya yasurru alayha xoolal tey doomu aadama toll na ci jamono boo xam ne day def bàkkaar kontaan wala def bàkkaar kontaan génn naan mbaay maa ngi ngand bàkkaar de kontaan kon kay xam nga ni kii def feebar ña ko doon def bu njëkk ba bàkkaar ña ko doon def bu njëkk ba duñ nelaw guddi yonent yàlla aadama alayhi salaam ñaata bàkkaar la rek ba yàlla wàcc ko àjjana ñaata benn xawaa ñaata la def benn iblis ñaata la def benn ñun ku toppi ñaata nga am kenn xamu ko de ah minimum xanaa mën nay cent de ah imagine leen nag aadama am benn bakkaar ndeysaan wala benn bakkaar moo ko xawa bi leen yàlla wàcce ci àdduna dañoo réeroo ñoom ñaar aadama yàlla wàcce ko Inde awa yàlla wàcce ko Jidda ñuy wërante di wërante ba daje ci jabalu Arafat moo tax judde ko Arafat Arafat lañ daje ñu xamante ñoom ñaar ñu gisanti waaye aadama toog na makasa aadam salaasa miata sana lam yarfa raasahu ila sama aadama toog na ñetti téeméeri at yëkkatiwul bëtam xool kaw asmaan ngir lan ngir rus yàlla benn bàkkaar boobu mu def benn bàkkaar boobu mu def mu rus ko te moom yàlla baal na ko de parce que wax na yàlla rabbana zalamna anfusana fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaat fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim baat yi mooy lan rabbana zalamna anfusana fa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin yàlla baal ko de mais terewul mu ngi am complexe aadama bi mu lekkee garab gi mu am bàkkaar dafa daw di nëbbatu yàlla biir aljanna yàlla mu ne ko yaa aadam atafirru min nii aadama da nga may daw mu ne laa yaa rab yaa déedéet yow sama borom daw maa de laakin yàlla man rus naa nga gis ma nii ma mel ma nekk aarin aasin may ku rafle aw ma yére maa ngi ne du mujj biti waaye maa ngi la may rus naa nga gis ma nii yow yàlla allahu akbar wala ñun nag ñun balaa nit di kontaan mu def lu bon bu dee xale bu góor la mu ne maay ngànd bu dee jigéen mu ne la sangu la wala wala yéen dund leen loolu fii seen seen fii dund leen ko su ma xelu amul la ngeen di wax amul de fii ngay gis ku def bàkkaar di sibile bàkkaar laa wax de di sibile nga woon nit ñi ñu lay tàccu gisu leen fi ku ñu ëmbal ñaar ñu am doom di ngénte loola la wala loolu du bàkkaar waaw gisu leen nit ñi ñëw di leen jàppale gisu leen loolu aywa kon loolu moo fi nekk da ngay gis Sénégal kuy def bàkkaar ba pare kontaan ci bàkkaar bi allahu akbar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man faala zanban yadhak daxala naar wa huwa yabki ku def bàkkaar di reetaan yonente ne di nga dugg safara ba jëg di jooy ñun dañuy def ay bàkkaar di reetaan mu ne am na ci ñooñu nga xam ne dañuy seen xol yi dañoo wow ndax feebar bi leen dal mooy feebaru ngëm yàlla gu na sax ñoom bu ñu defee bàkkaar dañuy kontaan mu ne am na ci ñoo xam ne nag ay façon façon façon yu bëree bëri la ñuy boole da ngay gis sax xeet yu njëkk ya benn bàkkaar la ñuy def benn mais ñu mu ne xeet wi dañuy dajale bàkkaar yi mu ne ñaareel bi ci feebar yi mooy ashuur bi qaswati alqalb wa xasuunati mu ne feebar yi bokk na ci ku yëg xol bu wow waaye ngay yëg sa xol dafa xomaat mu ne yenn saa yi nit ki dem ci sax bu yëg ne xolam bi moo xeerayam amatul benn yërmande amatul lenn lu ko yàlla di sant bu mu yëg ne moom daal dëgg-dëgg lii mu ngi koy def am na ci njeexital wala kontaan na ci moo tax yàlla mu ne summa qasat qulubukum min baadi zalik fa hiya kal hijaara aw asaddu qaswa loolu moo tax seen xol yi wow ba mel ne ay doj wala nga ni doj yi sax moo gën a nooy seen xol yi suñu bëggee xam ne waa ji xolam wow na wala wowul nañ ko xool waaraate dootul jëriñ xol bi mawisa loolu ñu naan waaraate la moo taxoon yàlla mu ne nañ waaraate fa zakkir in nafaati zikra fa zakkir bil qurani man yaxaaf waaye lu tax yàlla mu ne woon nañ waaraate pour nit ñi mën a fàttaliku pour xol yi tooyaat xoola sahaaba yi nee nañ benn bis yonent bi saa sallam daf leen waar waar goo xam ne wajilat minhul qulub xol yi dañ cee tooyaat ça veut dire que kon waaraate lu mu doon jëriñ mooy xol yi tooy léegi waaraate dootul jëriñ xol bu tooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi yonent bu doon waar saxaaba yi saxaaba yi dañuy jooy ñun tey bu ñuy waar dañuy reetaan kon du benn mu ne ñaar wala ñett mbaa ñeent mbaa juróom da doon jëriñ boroom xol bu wow bu ci njëkk mooy waaraate ñaareel bi mooy ru'yatul may gis ku dee imagine démb boo déggoo nit dee na xarit boo doon àndal papa yaay jarbaat jëkkër jabar mbokk àndandoo nga dégg dee na nga ñëw ba ci dëj bi waxuma sax nga gis ku dee nga ñëw ci dëj bi rek doo yoon na yow ci waar da ngay jub mais loolu yëpp jeexatul rek da ngay gis koo xam ne gis na ku dee ki moom moo ko sang moo ko sang moo ko yóbbu ci armeel bi ñu gas bu ngénnee ci buntu armeel yi nga gis mu ne yoroo ko cigarette taalal ma waaye xëcc commencé xëcc la gis la loolu wala nga dem ci dëj yi nga fekk lan la dëj yi léegi noos la kenn xalaat ku dee ki mu ngi ci morgue bi ñuy sang ku góor la nga dégg ku naan ah ah soxna yi nag koo ci taamu yow ci ku ndaw ki ngay commencé labat bu dee jigéen ñi tamit kasaay ñu commencé làng seen waxtaan jëmale àllaaxira dee dootul jëriñ dër lu tax parce que xol yi ñoo boobu waaye walal janaasa jàpp néew allahu akbar ku sang néew walal néew nga sang ko yow après loolu loolu la war a jot dafa am borom xam-xam bu mag Sufyaanu Sawri su ma juumulee dafa dugg ci armeel yi mu fekk ñu tëral néew bi di gas ñu ngi tëral néew bi ñuy gas mu ne taalibe bu mu àndaloon waaw kii tëdd fii su dekki woon tey lan lay def mu ne allahu akbar kii de dootul tardel julli mu ne ndax mënati na ko mu ne déedéet mu ne kon yow mi ko mën bu mu la rawati kon deke dee topp janaasa dafa am lu mu doon jëriñ mu ne yenn saa yi sax waa ji mën na ko yenu mën na bokk ci ñu yenu kees gi yenn saa yi man mën na bokk ci ñu yor peel bi gas pax bi yenn saa yi mën na bokk ci ñu ko dugal yenn saa yi mën na bokk ci ñu jël suuf si delloo si ko ci kawam voilà kii ay mbokk yi loolu yëpp dootul am njëriñ parce que xol yi ñoo dee loolu yëpp dootul am njëriñ ci waa ji parce que xol bi moo feebar kooku mooy ñaareel ñetteel mooy adamu itqaanil ibada jaamu yàlla bu ñu ko doon def dañ ko war def mu rafet jaamu yàlla suñ koy def dañ ko war a def mu rafet mais léegi dañ ko dóor mu daan waaye wala booy tey naafile bi na gaawa dañ ko dóor mu daanu rek parce que da nga xaw a fatigué quoi du loolu moom dangay léegi ku ne nañ dem jàkka rapide ku bañ station monte fa ngay dem wala déggu leen loolu yéen bu ñaari jàkka dendoon jàkka ji ki fay jiite di tari innaa ataynaa wal asri kii ki fay jiite di jàng am mayata wan naaziaat bee mooy ëpp nit kàbbar yi taxawaay yi yàggatul rukoo yi yàggatul sujjóot yi yàggatul njàng mi sellatul kenn defatu ko mu rafet këpp këppal da ngay dégg bu dee jigéen ñi ne nañ këpp këppal am na ñoo xam ne dañ naan prix en gros laay jënd dama koy dajale suba tisbaar takkusaan timis gee mooy prix en gros nga dajale lépp bu guddee bala ngay tëdd nga fay kenn dootul jaamu yàlla ba rafetal ko comme ni ko yàlla bëggee allahu akbar xooleen yonent bi alei salatu salaam ak saxaaba yi ni ñu daan jullee xooleen ni ñu daan jaamu yàlla ni ñu ko daan rafetalee ah bu dee koor bu dee julli même bu dee sarax lu mu mën a doon wala yonent bi saa salaam ci sarax sax mu ne yal na yàlla yërëm waa ji nga xam ne ba muy saraxe loxo càmmoñ bi xamul lu ndeyjoor bi yore wala nu mu rafete mais ñun tey bokk na ci li lay wan ne nit ñi seen xol yi dañoo feebar mooy jaamu yàlla googu kenn dootu ko def mu rafet jàng alquran boobu kenn dootu ko def mu rafet xataa ñaan yi ñuy ñaan kenn dootu ko ñaan mu baax xoolal nuyoo nuyoo lan lañu war a nuyoo bu ñuy bu ñuy nuyoo ci islaam assalaamu aleykum ah Sénégal lu ñuy nuyoo salaamaaleykum est-ce que baax na kuy jéggul yàlla loo war a wax astaghfirullah ñun lu ñuy wax astaghfirullah nga dee kenn subaana subaana laay kenn laay laay la laa gis nga xoolal bàyyi laa ilaha illa allah kee bàyyi astaghfirullah kii bàyyi subhanallah mbir yi sax léegi dootul baaxati non garaawul yàlla dinañ comprendre quoi xam na nu mu demee dinañ jëli quoi da ngay dégg ñuy wax te wallahi xoolal rek sunu àdduna bu la benn waay joxoon benn numéro téléphone nga yàq benn chiffre ndax dina la wuyu même bu lay jox sax da ngay bàyyi xel numéro yi ah ah muy wax di répété ngay bind ba mu baax ngir lan ngir ëllëg si biir bëggoo ñàkk benn dërëm xam nga ne boo dofee ba bind beneen lettre boo woowee keneen ngay jot da ngay perte unité boobu dem na léegi yow bëggoo sax ñàkk sa cinquante francs yooyu wala soixante quinze yooyu ba cent francs yooyu ngir xam nga ne àdduna la waaye ci yàlla nag ñu ne la bindal astaghfirullah wala waxal astaghfirullah nga ne garaawul waaye yàlla xam na nu mu demee saafurlaay rek daal di góob waaye wa adamu tadabbur même toog di xalaat yow lan moo tax yàlla bind la indi la fii ci kaw suuf yow looy ut si fii yaa fi indi sa bopp boo fi jógee foo jëm fa nga jëm loo fay fekk yàlla bi la bind indi fii ban système la bëgg nga dundee loolu yëpp kenn du ci xalaat in hiya illa xayaatuna dunya namuutu wa naxya wa maa yuhlikuna illa dahar ñun daal dañuy dund nii rek bu dee jeex na après la mort dara xew na dara du xew ñun ñëpp noonu la ñuy dundee mbokk yi kenn dootul xalaat ci yàlla subhanahu wa taala wa tafakkur fi maani l azkar même ñaan bi sax buñ la ko joxee da ngay dékku la ne mu bëgg nga jox ma benn ñaan nangam nangam ñaan buñ la ko joxee fekk ñaan bi tamit nga koy def nii ci kaw ah doo am dara ci li ñaan bi li muy wax ñaan bi dafa am lu muy signifie xoola Abu Hurayra dafa toog marché di jaay ñu ne Madina lakk na kër yaa ngi lakk mu ne sama kër la du ci bokk ñu ni xanaa da nga dof mu ne wallahi sama kër lu ci bokk ñu ne ko lu tax mu ne parce que yonent bi jàngal na ma ñaan boo xam ne bu ma xëyee wax ko suba lu bon du ma laal kër yi di tàkk ba yegg si këram daal di fay parce que dafa gëm ñaan bi xam na maanaam bi lu muy tey dafa am borom xam-xam boo xam ne da doon faj benn jigéen bu seytaane jàpp ngeen seytaane day dugg nit bu mu ñëwee mu ne seytaane bi génnal histoire boobu mu ngi ci téere bu tudd bi xaaya ngeen jógee ngeen dem seet ko mu ne ko génnal seytaane bi ne génnuma yow sax lu ci seyoon mu ne ko kii sama mbokkum jullit la dama koy jàppale mu ne almuhim génnal ci ndaw si mu ne ko génnuma mu ne ko di nga génn de mu ne ko su ma génnee ci yow laa jëm mu ne ko sama yoon nekku ci l'essentiel que di nga génn ci ndaw si rek seytaane bi daal di jooy jooy mu ne ko waa léegi la jooy mu ne damaa xam ne bu ma génnee ci moom yi mënumaa dugg ci yow ndax yow bi nga xëyee wax nga li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale moo tax su ma génnee it mënumaa dugg ci yow mu ne ko lan la yonente jàngale mu ne yonente nee na ku xëy wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamd yuxyi wa yumiit wa huwa ala kulli cheyin qadir fukki yoon seytaane du la laal ci bis bi rek waa ji ne ko sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon même ñaan yi yëgu ñu la ñaan bi hasard nga koy wax comme ça ñaan bi dafa am lu muy tekki dafa am maana foog nga gëm ñaan bi boo ci bëggee jëriñu waaye ñu bëree bëri même ci ñun ñaan yi par hasard nii rek bu njëkk ba sax xëy na lañ doon góorgóorlu ci ñaan yi amaa léegi moom ah sunna bi yëpp ñu laal ñu la yem ñëw na ci ñun ñoo xam ne ñaani yonent bi jàngale booy génn sa kër booy dugg booy tëdd boo yeewoo booy dugg ci toilette yi boo génnee booy jàpp boo jàppee ba pare booy sol yére booy simmi allahu akbar booy yéeg ci oto booy wàcc booy wàcc daaba ñaan yooyu niiw na tey ci ñun ñu koy def même ci cérémonie yi ñaan yi ngay wax boo demee ci kuy kuy takk jabar ku ñuy takk boo demee ci ngénte waa ji loo koy wax wallahi néew na ci ñun ñu koy wax lu ko waral mooy ngëm yàlla yi ñoo feebar xol yi ñoo feebar mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu mu ngi ñuy wax xadis mu ne yonent bi nee na laa yaqbalu duaaun min qalbil gaafil laahin yonent bi nee na yàlla subhaanahu wa taala day laa yaqbalu du nangu duaaun ñaan yàlla du nangu ñaan kan min qalbin gaafil ci xol boo xam ne ba waa ji naan allahumma laa mi ba muy wax allahumma boobu xol bi mu ngi naan bi jot na de day nga dee dawal yow billaahi boo duggee ci classe ñu génn la day laahin fokkat xol boo xam ne xol bi ak làmmiñ bi deful direct communiqué làmmiñ bi di ñaan di wax xol bi di traduire làmmiñ bi lu muy ñaan da ngay da ngay da nga daan da ngay jàng alxuraan wala da nga daan seetaan tele nga gis yenn saa yi ñu génne la ay naafile nga gis ilimaan bi di jàng di jooy ñeneen ñi di jooy wala ngay gis loolu ah ñooñu seen xol yi dafa dund parce que dañuy topp li ilimaan bi di wax dañuy topp li muy traduire dañu topp li muy wax Sénégal da ngay ñëw ilimaan bi nekk jàkk di xutba juma vendredi daan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu ummatin yadxuluna aljanna illa man aba nga dégg amin amin wala wala bu ñu waxee lu amul wax leen amul de kon kii xolal fu muy wax amin est-ce que luñ ko wax bu njëkk mooy kii kii li muy wax amin xamu ci dara amoon na temps bu yàgg boobu jàng mbedd yi dafa amoon yenn tarixa yi ñu daan jàng ba léegi sax ñu ngi koy def mais xam naa ne léegi yeewu nañ ci am na benn aaya alxuraan bu ñu daan way wajaa rabbuka nga gis gaa yi toog ci suuf di fecc wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii ayawma izin bi jahannama wajaa rabbuka di ko fecc est-ce que ñi xam nañ lu muy firi xamuñu ko li ñuy def ak la ñu nekke du sax benn kon loolu moo tax ñu am problème fokk suñu xol yi dee fokk xol yi dee mbokk yi xol bu dund mooy xol boo xam ne li ko yàlla sant li yàlla bëgg li làmmiñ bi wax xol bi xam na ko sàcc démb yi ñoo gën jullitu tey dafa am benn sàcc boo xam ne dafa dugg ci kër bu fekk ilimaan bi waa ji di naafila moo ko soxnaam guddi mu dajji fenêtre bi rek dugg bu mu duggee waa ji toll ci aaya alquran naan alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alxaq rek mu daal di yuux rek daanu ci suuf dee waa ji jullee ba pare mu ñëw xool mu gis waa ji dafa dee mu xool fu mu jaar mu gis dafa dajji fenêtre bi mu xam ne kii sàcc la mais lan moo ko rey ndeke aaya bi la lan la aaya bi wax yàlla mu ne ndax jotagul ba léegi ndax jotagul ci ñi gëm yàlla seen xol yi di jàq di toj ndax dëgg gi yàlla wàcce ndax jotagul loolu la dégg rek daanu dee ndeysaan nga gis ne kooku la ko sàcculoo mooy ñàkk moyen waaye jullit bu baax la fii nag tey allahu akbar mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla du nangu ñaanu xol bu sàggan fokat yàlla du nangu sa ñaan gis nga loolu moo tax dañuy ñaan ba sonn dara laa yaqbalu llahu du'aun min qalbin gaafilin laahin yonent moo wax loolu yàlla du nangu ñaanu borom xol boo xam ne xol bi dafa sàggan ba pare waa ji nekk fokat yàlla du nangu sa ñaan kon nekk xol beeg làmmiñ bi foog ñuy ànd ñeenteel ci feebar yi mooy atakaasul ani taatillah wal ibadat tayal tayal ci topp yàlla ñaata ci ñun tey ñoo tayal ci jaamu yàlla ñoo tayal ci ibaadaat jaamu yàlla ñaata ci topp yàlla yi dañ cee tayal jaamu yàlla yi ñu tayal ci kenn bëggatul yàgg ak yàlla te bu la xale bu jigéen seet see mbaa xale bu góor saa yu bu ngay def nga waaye toogal waay yow loo yàkkamte ah nañ ataaya ñu ataaya ataaya jeex nañ lee lee jeex nañu lan ah parce que bëggoo mu dem lu nekk ñu dugg ci pour rek bëggoo sa toog yàgg ndaw si wala yàgg xale bu góor bi mu gaaw a jeex yàlla nag kan moo bëgg yàgg ak moom yàgg boobu kenn bëggu ko même julli yi jàng alquran zikri yi allahu akbar kenn bëggul yàgg ak yàlla taf taf rek na gaaw na dem na dem na pare nga jëf nga ko jeex na naa ko def génn ci naa ko def génn ci moom la ñuy def tey ñooñu sax ñu baax lañ comme ñu ngi koy def am na ñoo xam ne nag pour ñu def ko allahu akbar problème bu rëy a ngoog nga xoolal waa ji nga xam ne mënut a julli fajar mais bu xëyee dana sol kilotam takk sol ay kawasam takk dàllam daw ba géej mais kenn mënu ko julli loo fajar mais daw espoir dem ba géej ak julli ñaar rakk fajar lu gën a métti muy la ma mouvement yi nit di def ci espoir ak mouvement yi nit di def ci julli bu gën a métti muy la ma muuraay ak jël mees cinquante mille soixante dix mille quatre vingt mille nga takk bopp bi cakar cakare ko ñu rëdd la lu nekk ak jël kaala teg ci bopp lu gën a métti di léttu mees rek ñaata fan lay toog ñu koy létt di laxas bopp bi di takk di xëcc ñaata loolu ak jël kaala san teg sa kaw bopp muur ko lu gën a yomb kon gis nga ta jaamu yàlla yi dañ ci tayal waaye caaxaan ñépp ci sawar loolu day wane ne ngëm yàlla gu faible moom mooy wane lool yàlla wax na ci alquran wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala bu ñu jógee di julli sax dañuy tayal dañuy gis ku jóg julli di gëm ni di di fudd yaram bi allahu akbar tey day julli ah lu nekk mu dugg ci yenn saa sax nga dégg ku ne naa ko leb ay garaaw nañ waaye nañ ko bés bu waaye leb ko ndax lan ngëm yàlla gu oyof ngëm yàlla goo xam ne dara nekk fi buur bi yàlla subhanahu wa taala mu ne waa ji day dugg ci jaamu yàlla gi waaye du ci dugg ci teey bakkan du ci dugg ngir mbëggeel yaay Aysa nee na yonente bi alayhi salaatu salaam danaa nekk ci ñun di waxtaan ak ñun waaye su julli jotee dootuñu xamati su julli jotee dootuñu xam danaan toog waxtaan ak ñun mais bu jaamu yàlla jotee yonent bi dootuñu xamati parce que lu tax jaamu yàlla moo yoon ñun nag jaamu yàlla yeeg Sénégal ban match la mujjee football mu ne mu dañoo nag jour vendredi ah Sénégal Guinée bis boobu lan la gaa lan la journée yu xëy bind da ngay gis ku dem rajo ku dem ku dem juma yore ay écouteur lan lay déglu match bi nekk biir jumaa de limaan bi xutba ngay déglu match bi saa yi nga ni nii dal ci kenn xam nga gars yi ñi seetaan yi ñoo gën a garaaw sax jour yi parce que ñoom dañuy topp action yi léegi naa Sénégal bu mu dugalee bii ñëpp daw gënd jumaa yi inna lillahi wa inna ilayhi raji wala ah noonu la ñuy def ci làmb noonu la ñuy def ci football bi noonu la ñuy def ci mboolem jaamu yàlla yi da ngay gis nit ki di seetaan match concentré wu wala muy seetaan film concentré wu ku wax mu ne la bu la xoolee rek nga noppi nii ci jaamu yàlla du ko du concentré woo noonu bu bu taxawee du concentré wu noonu bu rëkkoowee du concentré wu noonu bu sujjóodee ci film rek laa wax de film du concentré wu concentration boo xam ne buggul kenn sëqat buggul dara wax mais bi muy jógee di jaamu yàlla dafa réglé mon compte naa ko tàmbalee ah nangam jeexal ko nangam. kon nan seetaat suñu bopp mbokk yi nan xoolaat suñu bopp gis ngeen mbir yi du toppandoo du àndandoo in ahsantum ahsantum li anfusikum ku def lu rafet koo ko defal kon nag kuy liggéeyal sa bopp doo yàq wala fi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju ku noppi nax sa bopp sa aajo faju li nga bëgg nga am feeg yaa ngi nax sa bopp li nga bëgg doo ko am jullit nag du nax boppam te gis ngeen yàlla gëmul nelawul yàlla kenn mënu ko nax lu tax rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu saalihin fa innahu kaana lil awaabina gafura yàlla moo leen gën a xam seen bopp yàlla nee na maa leen gën a xam man xam naa li ci seen biir xol yi wa aqrabu ilaykum min hablil warid seen bakkan yi ak xol yi buum gi fi nekk di xëcc oxygène bi ngay nooy yàlla moo ne maa la ko gën a jege kon xam naa la kon kenn mënut a nax yàlla xam nga lu am te am lu des mooy kenn ku nekk booy jaamu yàlla nga xam ne yàlla ngay jaamu te jaamu yàlla bi ngay jaamu yàlla yow lañ koy fay nga def ko ni ko yàlla santaane nga def ko ni ko yàlla bëggee nga def ko bi nga koy def yaa ngi ci am amour yaa ngi ko bëgg benn waaye dañ ne yow kañ ngay mer mu ne bu ñuy sëlmal julli rek damay mer ñu ne lu tax mu ne du ma bëgg julli gi jeex. ñu ne lu tax ne yàlla laay waxal muy wax ak yàlla kay doo bëgg mu jeex imaam ali wala bala ñu ko doon faj dañuy bàyyi ba muy julli bu demoon jihaad ñu jom ko wala ñu koy faj dañuy bàyyi ba muy julli bu ne allahu akbar rek ay song est-ce que day fekk ni muy concentré wu ci yàlla subhanahu wa taala waaye xoolal ñu benn saxaaba mu ngi nettali nee na yonente bi alei salatu salaam julli nañ gee ba pare ma war a nuyu yonente bi ma soxla ko mu ne ma ñëw ma fekk mu kàbbar muy jàng faatiha ma ne taxaw ci kanam ma itam ma ne xam naa ne day naa fi la ñaari raaka rek après moo ko sama sama soxla yonent bi jeexal faatiha jël baxara yonent bi jeexal baxara jël aala imran daal di rukkoo lu toll noonu lu toll ne baxara ak aala imran mu siggi ci rukkoo bi taxaw lu toll noonu mu sujjóot sujjóot lu toll noonu ñaari sujjóot yi mu siggi jël nisaa yi ak maayida bu muy sëlmal fajar bu mu ne asalaamaaleykum rek bilaal di wax asalaatu xayrun min an nawm ñaari rakk guddi gi jeex jàngeen alxuraan yàlla mu ne kaanu qalilan min alleyli maa yahjawun wa bil asxaari hum yastaxfiruun gaa yi daaw ñu nelaw guddi kaanu nekkoon nañ qalilan lu néew min alleyli ci guddi maa yahjawun lu ñuy nelaw daaw ñu nelaw guddi lu néew lañu daan nelaw bu ñu demee ba njël sulusul leylil axiir guddi googu ñetteelu xaaj bi yàlla di wàcc ba asmaan sa cëb asmaan naan ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may balu ma baal ko dañuy toog di jéggalu yàlla wa bil ashaari hum yastaghfiruun jànge naa yàlla mu ne allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama yaay dañuy fanaane sujjud bu bërsa am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy xëy guddi jot ñu ne haadihi layla laylatu sujud tey guddi sujud la mooy sujud bu wërsëg ñi dañuy xëy ñu ne haadihi layla laylatu ruku damay ruku bu wërsëg haadihi layla laylatul qiyaam guddi gi guddi taxaw la wërsëg Usmaan ibnu Affaan kaamil bi ñaari ràkk la ko doon naafi la guddi bu jeex kaamil bi ñooñu ñen tànk lañ yoroon kon moo tax yàlla bu muy joxe seen misaal mu ne siimaahum fi wujuhihim min asari sujud dañoo julli ba foo leen gisee rek xàmmekaay bi mu ngi seen jëm ñoom xàmmekaay ndax lan yàgg bu ñu ko yàgg a def zeynul abidin ibnu ali ibnu husayn dañ ko fekk ci kaaba gi mu ngi julli ba fii mel ne nefere nag oom yi ñu ngi wow koŋ yàqu wala noonu la mel bu julli fii ba mu yàqu ñuul këkk wow koŋ ak óom yi ñooñu noonu lañ meloon parce que li ñu doon def dañ ko doon def ñu ngi ci am cofeel ñu ngi ko bëgg bu ñu taxawee toroxlu yonent bi saa salaam bu daan julli dañuy dégg dënn bi azizun ka azizul mirjal min al bukaa dënn bi di xiixat mel ni cin bu bax muy jooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam sahaaba yi kazalik yàlla wax nañ ko ci alquran ah yoon bi bu leen daan waar sax dañuy mel ne ay garabu tàndarma ñu ne pittax wala picc mën naa teg ci ñoom ba naawaat duñ xam ne picc bi tag na seen kaw ndax dañuy concentré woo ndax dañuy jël parce que yonent bi moo leen di jox kon loolu noonu la ñu war a góorgóorlu pour nu mel noonu loolu la ñu war a góorgóorlu pour ñu am li gaa yi amoon mu ne yemul rek ci waa ji di tayal ci julli du yëg dara waaye waxtu yi sax xamul ban waxtu la fi mu nekk nii bu ñu jëloon micro bi dugg fii di laaj waxtu julli ban heure la suba ban heure la tisbaar takkusaan timis gee du ma wax ne ñëpp danañ tontu la waaye dina am ñu nakk nakkal xoolal jullit boo xam ne xamul heure waxtu waxtu waxtu waxtu julli ban heure la dama kooku dina ko respecté ku xamul julli ban heure la waxtu suba xamoo tisbaar ban heure la xamoo taakusaan ban heure la xamoo gee ban heure la yow di nga respecté julli yi abadan bu dee góor bu dee jigéen du ko respecté te pourtant heure bu muy añ allahu akbar heure bu muy reer heure bu muy ndékki heure bu muy dugg heure bu muy liggéey heure bu ñu koy fay weer dee na heure bu ñu koy fay uu koy xam nañ ko moom mais heure julli yi kenn xam ko lu tax parce que tayal ci jaamu yàlla moo tax nee na yemul ci loolu waaye waa ji kenn mënu koo yóbbu mu dem julli ji mbooloo salaatul jamaa abadan laa yusalli salaatul jamaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yazaalu qawmun yataaxaruuna an safi l awal xatta yuxlifuhum llahu fi nnaar ay nit duñu deñ di tardé lu sàppe premier di tardé tardé lu sàppe premier ba yàlla tardé leen dugal leen safara jullit yi xamuñu ne sàppe premier sax dañ ko war a njëkkante sàppe premier ci julli ci jàkk jullit yi xamuñu ne dem jàkk jàkk dañ ko war a njëkkante len bi saa salaam nee na bu ngeen xamoon ne bu ngeen demee jàkk di ngeen fa fekk yax bu duuf bu ñu mis wi lakk ko ba mu ñor bu ngeen xamoon bu ngeen demee fekk ko fa di ngeen dem wala du ngeen dem dañ dem kay waxuma la sax yàpp mais tey xoolal samedi am na ñoo xam ne bu ñu yégee ne jàkka ji mosquée am na mariage ji mi ngi fa beñee guro sàppe premier la ñuy toog di xaar guro goog beñee beeg bisaab bi jullit bu bëgg yàlla day dem julli ji mbooloo jàkk benn saxaaba dafa feebar doom yi di jooy mu ne da ngeen di jooy ñu ne waaw mu ne da ngeen di jooy ñu ne papa dañoo ragal nga génn àdduna mu ne bu leen jooy maa azzana al muazzinu illa wa ana fi safi l awal arbaina sana quarante ans noddukat bi saa yu noddee day fekk maa ngi sàppe premier waxul damay ñëw nekk sàpp dénoon noddukat bi ci yàkk bi la may fekk maa ngi sàppe premier toog te yonent bi nee na ñu nekk sàppe premier malaaka yaa ngi di ñoo ngi leen di ñaanal yàlla wala ñu duñ dem jàkk jullit bu dul dem jàkk ndax tayal su stade wootee mu fees deel podium yeeg xumbal yeeg ndaw rabbin yeeg dansin yeeg léppay fees am maa julli jàkka non non du fees ku woote ñu wuyu la ba mu des yàlla subhanahu wa taala mbokk yi nañ leen xoolaat suñu bopp yàlla nee na wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid seen xar kanam yi da ngeen koy jubal ci jàkk yi da ngeen di dem jàkk aaya ba yow ma yukk safu an saaq boroom xam-xam ba ko doon firi dana ñooñu ñu dul dem jàkk ci aaya ba ci ñooñu la wàcc yonent bi amoon na saxaaba boo xam ne dafa silmaxa dafa gumba mu ngi tudd abdullahi abdullahi ibnu ummi maktum fa gumba woon mu ñëw ci yonent mu ne yonent man aw ma ko ma yóbbu jàkka de ndax bu ñu noddee mun naa julli sama kër yonent ne ko hal tasma'u nidaa ndax bu ñu noddee di nga dégg mu ne waaw mu ne ko ajib dama nga wuy ji xam nga waa ji nu mu def dafa dem marché jënd buum bu gudd mu takk buum bi ci buntu jàkka ji mu xëcc beneen cat bi takk buntu këram bu déggee nodd mu jàpp ci buum bi dem bu ñu jullee pare mu jàpp ci buum bi ñibbi silmaxa gumba ku dul gis ñun ku baax ci ñun bala ngay dem mosquée vendredi ba vendredi wala ku baax ki vendredi ba vendredi lay dem mosquée juróomeel ci lu gaaw ci tënk ci wane ne yii ku ko am danga am feebaru ñàkk ngëm yàlla mooy diiqu sadr xol bu xat waa joo xam ne dara xejul ci moom munul accepté dara te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al iman as sabr wal musaamaha ngëm yàlla daal bu ngeen buggee xam mooy lan mooy muñ wala waa ji mu munta muñ dara dara mun ko muñ munta muñ taxawaayu julli mënta mun toogaay jàng alxuraan mënta muñ toogaay tudd yàlla mënta muñ toog ci benn place déglu fa waxu yàlla subhana mënta muñ tus ci diine yàlla subhana taala moom daal leneen lu nekk mën na ko muñ mën na muñ saaga seetaan film trois heures de temps mën na muñ seetaan football kazalik mën na muñ seetaan bëre mën na muñ seetaan musique mën na muñ seetaan soirée waaye see muñ jaamu yàlla munu ko loolu ku ku ko seetlu ci sa bopp bu yeboo nga xam ne yow da nga am feebaru ñàkk ngëm yàlla jugal ci sa bopp nga dem nga faju ci juróom-benneel mooy adamu taasir bi ayatil quran koo xam ne alquran du jeexital ci yow boo ko jàngee du jeexital boo ko déggee ñu koy jàng du jeexital ci yow alquran daal mënu laa yëngal yow leneen lu nekk mën nga kaa dégg yëngu ba mu des alxuraan da ngay gis koo xam ne ay woy rek woyu woyu woyu Viviane ah Viviane la tudd Viviane la tudd ah ku jigéen ko kooku la dégg rek woy vraiment tey sama xol bi dafa féex di jooy kii woyu kenn ci woykat yi la dégg ay ñoom yu sundu rek rek kontaan mu am jeexital ci moom mu bëgg waaye alxuraan yàlla boo ko tagale day mel na ci moom ay bërigo yu ñuy yu ñuy jaaral ci tali muy xërëng-rëng yi noonu la mel ci moom alxuraan du jeexital ci moom allahu akbar xoola alxuraan ni mu deen jeexitalee ci yonent bi ak saxaaba yi yonent bi saa salaam benn bis dafa ne benn saxaaba kaay nga jàngal ma alxuraan saxaaba di jàng di jàng ba ci àgg mun a ko doy na mu ngi jooy li mu eggee ci benn aaya aaya bi naan lan ay ëllëg yow yonent bu la yàlla jàppee indi la ci kanamu gaa yi nga taxaw di leen seede keroog dina ñaaw de rek yonent bi jooy wala ñun waxuma la jee alxuraan lu mu doon jeexintalee ci moom noonu lañ gëmee woon alxuraan benn jinne dafa jàpp benn benn nit ñu indi ko ci Omar ibn Khattab Omar ne lan la ñu ne seytaane moo ko jàpp xam nga yonent bi nee na Omar dafa amoon ngëm yàlla ba seytaane bu ko séenee day daw Omar jàpp rek ñëw ne seytaane génnil ci waa ji seytaane dëgër bopp rek Omar daal di commencé jàng alxuraan daal ne aouzu billahi min asheytaani rajim xaaf rek seytaane génn ne put mel na muus mu ñuul rek daw waa ji daal di wér këñ Omar daal di génn àdduna jinne ji daal di ñëwaat duggaat ci waa ji ay at yu yàgg lañ toog Omar dund na ak waa ji Omar génn àdduna bàyyi fi waa ji seytaane ba génnoon duggaat benn waay ne ah kii kay mun naa ko faj ndax Omar fekke woon naa keroog ba ko Omar di faj dem jàpp ñëw bismillahi rahmani rahim xaaf mu ne ko doo Omar de gën lu benn parce que alxuraan bi dafa jeexital ci moom da ko gëm yi gëmu ko mooy suñu problème alxuraan bi ñun ñëpp am nañ ay kaamil sidisi am nañ matrud usayfi manshawi mahmoud khalil usayri ku nekk am nga ko ci fan ci jàngkat yi mais dara doo ci dégg kenn jàng ba nga jooy doo ci dégg kenn jàng ba mu delloo la ci yàlla subhanahu wa taala góor ak jigéen mag ak ndaw te alxuraan bi du loolu moo ko taxoon jóg li tunzira man kaana hayyan kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumaat ila nuur yàlla sax dafa ne ñi bëgg a waaru nañ leen waar ci alquran fa zakkir bil quran man yaxaafu waid kon bokk na ci loolu mooy alquran du jeexital ci waa ji su déggee alquran di tëkku naan inna allazina kafaru min ahlil kitaab wal mushrikin moom du tiit xam ngeen alquran day tëkku yenn saa yi nangam bi ku ko deful dinaa def nangam inna allazina kafaru sawaun alayhim a anzartahum am lam tunziruhum laa yuminuun waa ji du tiit su déggee alxuraan di di di bégale di dige dara naan inna allazina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula du ko yëngal waa fee dégg na yàlla di tëkku war a tiit mu dégg fii yàlla ne ñi gëm yàlla na lazina amul wa amilu saalihaat def lu baax ñooñu naa leen dencal aljanna firdaws mu góorgóorlu bokk ñoom du ko def mu ne moom affaire yi daal amu ci benn yëg yëg yëg su déggee alxuraan di digle naan yaa ayyuhal lazina amanu naan def leen dara comme qu anfusakum wa ahlikum naara musal leen seen njaboot ak seen bopp safara moom du ko yëngal yaa ayyuha alladina amanu ida nuudiya lissalaati min yawmi aljuma fasaw ila dikrillah moom du yëngatu dégg na alquran tig tëkku yënguwul dégg na alquran dige kontaanul jëm ci dégg na alquran digle deful waaye dégg na alquran tere bàyyiwul innama alxamr wal maysir wal ansaab wal azlam rijisun min amali sheytaan bàyyiwul dégg naa alxuraan ne bàyyi leen sàngara bàyyiwul bàyyi leen péemi bàyyiwul dégg na alxuraan mu ne yaa ayuha nabi qul li azwaajik wa banaatik wa nisaai lmuminin yudiniina alayhinna min jalaabibihin eh yow yonent waxal say soxna waxal say doom waxal jullit yi jigéen yi nañu muuru moom muuruwul xoolal aaya boobu bi mu wàccee da fekk am saxaaba yu jigéen saxaabiyaat yu demoon teen rooti am ñu demoon marché am na ci koo xam ne doomam dafa daw fekk ko ca teen ba fu muy rootee mu ne ko yaay alquran wàcc ne léegi ci muhammad nee na jigéen ñi dañoo war a muuru rek dafa taxaw mu ne dawal dem kër ga indi ma lu ma muuru mu ne ko noonu nañ dem ba kër ga mu ne ko giñ naa ci yàlla xaw ma nag sama tànk ndeyjoor bi moo ko teggee balaa càmmoñ bi teguwaat damay dee kon dégg naa waxu yàlla du ma buuse lu dul dama koo def moo tax yaay Aysa mu ne yàlla na yàlla yërëm jigéen ñi ansaar bu ñu déggee yàlla ne jigéen dafa war a muuru dañoo xotti seen i lapisër ci suuf muuru ci kaw bopp yi ana jigéen yi Sénégal ñoom ba léegi ñu ngi ci lëkkaraay ak jumbax awti ak fiiso yi ah kon du benn parce que ñee xol yi ñu ngi dund ñi xol yi dañoo dee mu ne waa ji bu déggee alquran ba tey di mel di melal yowmal qiyaam allahu akbar xoolal yowmal qiyaam yonent bi saa salaam musta am jitaay ba wax fa yowmal qiyaam lu dul dégg nañ saxaaba yi di jooy ba jàkk jiiri mais julli di tey dangay wax yowmal qiyaam ñuy reetaan mel na ñoom problème yi fa am ñoom bokkuñ ci danga naan nit day dee ñu dugal ko bàmmeel ñaari malaaka ñëw di ko laaj nga gis gaa yi dee mel na ñoom bokkuñ ci ñi ñuy laaj allahu akbar loolu moo la woon ne mbokk yi xol yi ñoo feebar xol yi ñoo am duuful imaan juróom-ñaareel ci feebar yooyu ba tey mooy alxafla anillahi azza wa jal mooy sàggane yàlla sàggane yàlla yàlla dootul saf kenn bu julli ñi di julli ñi démb yàlla da leen ñoroon yàlla koo ci waxoon yàlla rek day bàyyi li muy def koo ci noon yàlla day def wala nga ne ñu naan ñu doon wax fi sabilillah ci yoonu yàlla nga gis gaa yi joxe ngir yàlla ñu joxe mais tey yàlla kenn kenn yëgatul yàlla subhanahu wa taala laysa fi zikri yi nekkul ci ñaan bi jullit dafa war a yëg ne moom dafa ñàkk dafa soxla yàlla mais ñun soxla wuñu yàlla tey parce que kenn ku nekk da nga naan yow garaawul quoi yow ngan nga mën nga affaire bi amul problème da nga ko defar wala ñee ñoom dañoo soxla lu ñu mën mën mën mën mën dañuy soxla yàlla yow nag tey da nga ne soxlawuloo yàlla parce que mën nga mbir mi wa du'aa'ihi ak di ko ñaan ma wan leen benn ma jox leen benn misaal ci loolu kaaw yi ko doon tabax kaaw yi ko doon tabax Ibrahim moo kan Ismaïl mën na tabax bi n'est-ce pas ciment baa ngi nii turel baa ngi nii suuf saa ngi nii weñ yaa ngi nii lépp a ngi nii règle baa ngi nii fil-plomb a ngi nii lépp a ngi nii mais terewul bi ko doon ñu joxee biri gi danaan rabbana loolu mooy ñaan bi ba muy tabax kaaba gi ban ñaan la doon ñaan ah rabbana arina manasikna wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim xoola mi ngi tabax de mi ngi teg biri gi mais mi ngi def mi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla ñu def man ak sama waa kër ñu nekk ay jullit hablana yàlla yàlla ñu def ñu nekk ay jullit man ak sama doon yàlla nag ñu wan nu ñuy jaamoo yàlla wa arina manasikna wan ñu ni ñuy jaamoo yàlla te mu ngi teg affaire yi te terewul mi ngi jaamu yàlla mi ngi teg biir yi ah di ñaan yàlla subhanahu wa taala munoon na ne man mën naa rek mais déedéet parce que ñoom dañoo soxla yàlla ñun nag soxla wuñu yàlla subhanahu wa taala ci suñu lenn waaye yemul ci loolu yemuñu rek ci sàggane yàlla subhanahu wa taala waaye tudd ko da ngay dégg ñu ne saxaabatul kiram dañoo tàmmoon tudd yàlla ba bu ñu duggee ci duus dañuy lokk xooxu tàndarma pour duñ fa tudd yàlla benn waaye ñëw na ci yonent bi mu ne ko saraayu islaam dafa métti ci man wax ma benn mbir moo xam ne dinaa ci sax jàpp ji mu ne ko laa yasaalu lisaanaka ratban li zikrillah salaam bi day tudd yàlla ba mu tooy tap foo nekk del tudd yàlla subhaanahu wa taala foo toll del tudd yàlla subhaanahu wa taala laa yasaalu lisaanak ratban li zikrillah salaam bi bu mu dal di tudd yàlla fu nekk tuddal yàlla booy tëdd tuddal yàlla boo yeewoo tuddal yàlla boo dugg ci toile bi tuddal yàlla benn waaye benn yahud ñëw na ci abu zar mu ne ko ndax yonent bi jàngal na leen lépp mu ne ko jàngal na lépp mu ne jàngal na leen ba jàngal leen bu ngeen di dugg duus nu ngeen di duggee mu ne waaw jàngal nañu ba jàngal ñu bu ñuy dugg nu ñuy duggee bu ñuy génn nu ñuy génnee suñ fa nekkee nan lañ fay nekkee bàyyiwul dara ñoom askar yooyu lañ tàmmoon lu nekk dañ ko daan wax lu nekk lu nekk lu nekk xoolal saxaaba yi ne nañ jàng nañ ba jàng listixaar wala ngay def dara da ngay def sa istixaar wala ngay def dara allahu akbar ñun nag tey boo gisoon ay daal yu la neex rek da nga ñëw daal di ñaata ñu ne la doom yi nga génne fay xataa waxaale bi ngay waxaale daal yi bala nga koy jënd da nga war a def istixaar bu doon oto kazaali bu doon kër kazaali lu mun nekk nga def istixaar lii may jënd de bu baaxee ci man baax ci sama diine baax sama àdduna baax sama àllaaxira na ma ko yàlla defal su bonee ci man bon ci sama àdduna bon ci sama diine nar a yàq sama àllaaxira yàlla yàlla nag ma ko soril nga jox ma lu ko gën loolu mooy ñaan ñun duñ ko def parce que ñun soxlawul yàlla suñu bopp doy nan waaye yemuñ ci rek ci sàggane yàlla subhanahu wa taala ci ay ñaan ko hatta yëkkati say loxo sax di ñaan yàlla tayal nañ ci yëkkati loxo yi te yonent bi nee na yàlla rus na nit tàllal yàlla loxo yàlla delloo loxo yi mu neen yonent yàlla ibrahim keroog bañ koy yeewee di ko sànni ci safara si jibril dafa ñëw ne ko lan nga soxla mu ne la mu ne ko soxlawuma la sama borom mi tax ñu may def nii mi ngi may gis du ma seetaan ne kooku dafa soxla yàlla yonent yàlla Moussa bi ko firaaw na dàqee ba sës ko ci dex gi mer rouge sës ko ci géej gi nit ñi di yuuxu ñi àndoon ak Moussa lu ñu doon wax inna la mudrakuun danañ ñu dab danañ ñu rey ñun danañ dee tey Moussa comme moom dafa soxla yàlla xam na yàlla mu ngi ànd ak moom mu ne leen kalla inna ma'i rabbi déedéet yàlla mu ngi ànd ak man wala dañu soxla yàlla parce que yàlla mu ngi ànd ak moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xaaru Hira bi mu gàddaayee dugg ci xunt mi yéeféeri ñëw abubakar lu mu ko wax gaa yaa ngi gis de yàlla mu ne allah tansuruhu faqad nasarahu llah is axrajahu alladina kafaru saani snayn is is huma fi lgaar is yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maana abubakar ngi tiit yonent maa ngi koy teg loxo naan ko bul tiit bul jàq yàlla mu ngi ànd ak ñun julli dafa war a soxla yàlla ñun danoo soxla yàlla mbokk yi suñu dund gii bu ci yàlla génnee loxoom dañuy alku te gis ngeen Sénégal yaakaaroon ngeen bu ngeen amee alternance mu neex kañ ngeen ko jëkkee ren ah wala ba léegi yéen a ngi ci kon neexagul de ah parce que dañoo génne yàlla ci Sénégal feek dugaluñ ko ci nag xam ne yàlla moom moom Sénégal du neex ak président bu ngeen fi mën a indi nag président bu ngeen fi mën a indi li li ñuy def rek lay def. société yaa ngi daanu wala dëkk baa ngi ne amul courant yéen yéen a ngi ci jàmm parce que gars yi ñëwuñu coupé seen courant mais bu ngeen génnoon fii allahu akbar ngeen xam banlieue bi dañ leen di coupé courant 24 heures sur 24 da ngeen ñu ne essence bi dafa manqué ndox mi kazaalik kon xam ngeen ne réew mi neexul parce que lu tax parce que dañ cee génne yàlla yàlla luñ ko génne rek mu xajam cere ji ku ko moom yàlla moom moo indi dugub ji ñu saxal ko ci suuf si benn grain nga indi woon mu jox la téeméer nga def say saak yóbbu sa kër jox sa jabar ku la may jabar ji yàlla moo la jox ndox mi nga ko toggee moo la jox yàpp bi nga ko bi nga ko toggee ba mu ñor nga nga yekk nga ni nga ni yàlla moom ñu mu bëgg lekk duñ ci lekk yàlla tibb danga ko suuf daal di ko ciy sotti cere ji daal di xajam mooy sunu dund tey Sénégal dafa xajam te fekk delloowuñu ko yàlla du du neexaat kon danoo soxla yàlla lépp lu ñuy def nañ ci boole yàlla subhaanahu wa taala su fekkente ne dañoo bëgg suñu dund bi neex juróom-ñetteel mooy adamul ghadb isan tuhikat mahaarim allah ñun ñi kenn dootul mer bu ñu gisee bàkkaar gis nga koo xam ne boo gisee bàkkaar doo mer na nga yëg ci sa xol ne da nga am feebaru ngëm yàlla allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu gisoon ñuy mooy yàlla day mer yonent bi musta mer lu dul dañoo xotti xorma yàlla subhanahu wa taala xam ngeen yahuud yi lu tax yonent bi génne leen Madina est-ce que xam ngeen histoire bi benn jigéen lañ muri woon jigéen ji ñoo wax ko yonent bi yonent bi ne yahuud yi yépp nañ leen génne Madina benn jigéen bu jullit lañ muri woon te ñaata jullit jigéen lañ muri ah waxuma ñu muri leen mais fan yi am na ñaari journaux yu commencé génn Sénégal benn baa ngi tudd tolof tolof benn baa ngi tudd rak tak est-ce que yéen a ngi koy xool ah loolu dina am ci dëkku jullit ana ana ana ana ana autorité yi lan la leen fi tege ana sëriñ yi lan lañ jiitee diine ji malheureusement li yonent bi saa salaam wax moo am sinfaan min ummati ida salahu salaha nnaas wa ida fasadu fasada nnaas al umara wal fuqaha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari nit ci sama xeet suñu baaxee xeet wi yëpp baax waaye suñu bonee xeet wi yëpp bon Sénégal amuñu ñuy dundal diine ñuy dundee diine lañ am ma baamtuwaat baa di ngeen dégg ma ni Sénégal amuñu ñuy dundal diine ñuy dundee diine lañu am diine ji dañ koy dundee mais kenn du ko dundal dundal diine mooy nga taxaw ci li diine bëgg nga santaane ko nit ñëpp def ko nga xeex ak ñi ko bañ a def ñu xoolal journal journal journal yooyu di di génn fan yi xale jigéen la ñuy jàpp futti leen yaramu neen comme nu leen seen yaay juree di ko jaay affiché ko ah mais loolu dagan na ci dëkk bu mel nii quatre-vingt-quinze pour cent doo dégg kenn grève doo dégg kenn marche doo dégg kenn wax loolu du lu bon te lu bon yàlla bëggul ku koy feeñal alxuraan moo ñu ne inna allah yàlla subhanahu wa taala xoolal ñi nga xam ne dañoo bëgg lu bon rek ñi nga xam ne dañoo bëgg lu bon am yàlla ne dinaa leen mbugal mbugal mu metti kon ñi ko def nag ñi ko def nag comme ñi ko bëgg rek la yàlla di mbugal lu bon loolu ñi ko def nag kon jot nag saa yu ñu gisatee ñuy mooy yàlla ñu war a mer suñu xol dafa am benn dëkk bu yàlla waxoon jibril demal nga alak dëkk bi jibril bu mu ñëwee ci dëkk bi mu fekk fa benn sëriñ rek mu delluwaat yàlla moo ko gën a xam lu xew yàlla mu ne ko def nga li léegi mu ne yàlla dama faa fekk benn sëriñ bu baax ci biir dëkk yàlla mu ne jibril boo demee nga njëkki sëriñ bi njëkki ku mbugal moom jibril mu ne yàlla lu tax mu ne parce que dafa gis ñu may tooñ te kanamam soppeekuwul waaw dafa gis ñuy ma yàlla waxu ci fa noppi yent bi nee na saakitu anil xaq seytaanul agras ku gis dëgg nga noppi yow seytaane bu mu mëg yonent bi nee na al ulama warasatul anbiya ma lam yuxaalitu sultaan wa yudaaxilu dunya fa ida xaalata sultaan wa yudaaxilu dunya faqad xaanu rusulu jamian faxzaruhum yonent yàlla Muhammad nee na boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi fekk bëgguñu nguur bëgguñu àdduna suñu boroom xam-xam yi tey lan lañ bëgg ñoo gën a bëgg nguur jinne yi ñoo gën a bëgg nguur dëmm yi ñoom ñépp nguur lañ bëgg àdduna lañ bëgg bu njëkk ba borom xam-xam da doon toog ba buur seet si ko léegi nag borom xam-xam yi ñooy seeti buur yi yonent bi nee na saa yi ngeen gisee ci borom xam-xam mu bëgg àdduna bëgg nguur war na yonent bi na ngeen ko moytandiku mais malheureusement kenn def loolu ci ñun moo tax ma wax leen ne ñun amuñu ñuy dundal diine ñuy dundee diine lañ am juróom-ñeenteel ci feebar yooyu mooy xubbu zuhur bëgg feeñ bëgg feeñ gis nga même suñu parti politique yi lu ko yàq bëgg feeñ man ma nekk ci parti bi dëppi ngeen bëgg maa faat gis nga fu nekk rek nga bëgg ne nga bëgg feeñ nga bëgg ñu yow yi ñu xam yow yaay kan bëgg feeñ loolu léegi ci diine yi sax am na ci association yu bëri yi dara war la ko dul bëgg feeñ mbooloo yu bari yi dara waralu ko laa wax lu dul bëgg feeñ kuñ fal amir folli ko nga gis mu bàyyi mbooloo ma lu tax ñu may folli lu tax nangam ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bëgg fa bëgg feeñ hubbu zuhur bëgg feeñ bëgg gis leen ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man samia samaau llahu bihi wa man yuraai yuraai llaahi bihi képp kuy wax képp koo xam ne dangaa bëgg doom ñu dégg la yonent bi nee na yàlla dina def ñu dégg la képp koo xam ne dangaa bëgg def ñu gis la rek yàlla ne yonent bi nee na yàlla dina def ñu gis la waaye jeexal nga de ci yàlla amoo fa dara bëgg pal bëgg ndomb ak tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na innakum yéen ñii sa tuxsaruuna ala al imaara di ngeen perte ci fal yi ñu leen di fal wa sa takunu nadaama bëgg ngeen ko de waaye rëccu la leen di jural yowmal qiyaama wa sa takunu nadaama yowmal qiyaama waaw rëccu yowmal qiyaama loolu tax gis nga nit ñu baax yi suñu leen faloon dañuy bañ fala Omar ibnu Abdul Aziz dañ koy fal fekkewu ko bi ñu demee wax ko dafa bañ fa daanee jooy ba bët set ne jël leen seen nguur gi bugguma ko gars yi forcé ko forcé ko forcé ko ba mu jël su mu jëlee daawul nelaw guddi xoolal Umar xoolal Abu Bakar xoolal Usmaan xoolal Ali kuñ ci fal daawul nelaw guddi xoolal yonent bi rek yonent bi saa salaam même ci sukuraat mun da tëdd mu jóg di contrôler xeet ndax ci lan la ñuy nekk ginnaawam bu fi jógee parce que lan responsabilité ñun fi mu nekk nii kuñ fal dara sa yoon nekku ci ah te nit ki bu ñu la nee yow yow lañ jox nangam ma jox leen misaal waxtaan bi ñuy def suñ ñëwoon ñaari bopp yéen a yor organisation yi ah su fekkoon ne amuñu ngànt bi ñu am lépp bu heure bi jotee dafa war a nekk en place parce que ñoom lañ jox liggéey bi suñu la ne woon yow yaa nekk ci yàq ji daal yow yaa koy defar yow yaa yor responsabilité boobu suñu la ne woon yaa war a lor ba say yow yaa mais xoolal suñu yoon nekk ci am na koo xam day tëdd néegam naan mbokk yaa ngi fa mbokk yi ñu ko fa su mbokk yëpp defoon ni nga mel est-ce que l'islam dina taxaw kon yooyu yëpp dafay wane màndarga yuy wane ne ngëm yàlla gu yànjax ngëm yàlla gu doyati bokk na ci tomb yooyu ba tey fukkeel mooy as-suxu wal buxl mooy nay ak ngoot képp ku seetlu ci sa bopp ne yow dangaa nay génne sa alal def ko ci yoonu yàlla dangaa nay génne sa alal def ko ci diine ji ñu gël ne am nga benn feebar ci feebar yi wane ne ñàkk ngëm yàlla moo ko waral ndax joxe dafa bokk ci lislaam yàlla nee na wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa démb gaa yi démb dañ daan joxe ba ñañ doon jox ñoo leen doon gënal seen bopp jàng leen histoire saxaaba yi yonent am na gan yonent daana toog weer cin du tàkk këram weer du lekk lu tàng ndax amul woon ñun tey kan mooy toog weer lekkoo lu tàng yonent am gan ci situation bu mel noonu mu woo benn saxaaba ne ko gan gi yóbbul ma ko sa kër kooku tamit am na lu mu reere guddi googu de mais dafa tuuti te moom laa koy doomoon jabaram mu indi gan gi ci kër këram mu woo soxna si mu ne ko ah indi naa ganu yonent bi de lu fi des lu fi nekk mu ne ko am nañ tuuti reer de mu ne ma xool mu indi muy lu tuuti munu leen suur ñoom ñëpp mu ne xam nga nooy def fexeel xale yi nelaw su ko defee ñu dem ci saal bi fay làmb bi ñu dugal suñu loxo di génne waa ji di lekk ñun ñu mel na ñuy lekk te buñ dànk ñu yóbbu gan gi gan gi lekk ba suur la gan gi desaloon ñoom ñu doo koo lekk xawla gan gi xamul ne ñii lekkuñ ñu ngi dugal rek di génni di saqami te ñoom lekkuñ wala wa yusiruna ala anfusihim ñeneen ñi dañoo demoon xeex ñu jam kenn ki fële mu ne may leen ma ndox maa ngi dee ñu daw indi ji ndox biñ ñëwee ba ci moom mu dégg keneen kuy ñaan ndox mu ne dawal jox kële ñu ñëw ci kooku mu dégg keneen fële ci kaw mu ne demal ci kële balaa ñu yegg ci fee kooku dee ñu ñëwaat ci deuxième bi mu dee bala ñuy ñëw ci troisième bi mu dee kenn ku nekk da ngaa bëggoon sa morom naan ndox bi pour lan pour sauver yow nga dee. gis nga ñooñu ni ñu meloon saxaaba yi bi ñu gàddaayee jógee Màkka dem Medine lan la leen waa Medina teeroo yonte bi mu ne mbokkoo leen ci yàlla subhaanahu wa taala góor ak góor lañ mbokkoo jigéen ak jigéen nañ mbokkoo nga dégg benn góor yeesu ci kenn na ko am naa ñeenti jabar kaay ma nga xool koo bëgg ma fase ko nga takk allahu akbar kii ne am naa ay kër nañ dem nga xool boo bëgg ma topp nga dëkk am naa ay tool nañ dem nga xool boo bëgg ma jox la nga bay xoola abdurahmaan ibnu awf fi ñu ko doon mbokkale te ko ne wax ko li lépp mu ne ko baarakallahu laka fi maalika wa ahlik dullu ni ala suuq yal na yàlla barkeel ci sa alal ak sa njaboot wan ma marché bi ñooñu noonu lañ gën a lente woon seen bopp di joxe xool leen Suhayb bu Ruumi yi xool leen Abu Bakar Saddiq xool leen Usmaan ibnu Affaan xool leen Abdurahmaan ibnu Awf Usmaan ibnu Affaan dafa joxe alalam ba yonent bi ne bis ni ki tey Usmaan lu ko neex def yàlla dootu ko xool inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna aljanna te di nelaw mayew ko gaa yi ashtara la yàlla wax yàlla leen aljana dama koy jaay lu ñuy jaay bu amee il faut am kuy jënd il faut am kuy jaay il faut am prix kan mooy jaay yàlla kuy jënd jullit lan la ñuy jaay aljanna lan mooy prix bi mooy sa alal mbaa sa bakkan foog nga joxe sa alal wala nga joxe sa bakkan saxaaba yi joxe na ñëpp am na ñoo xam ne amuñu luñ joxe waaye dañoo joxe seen rongoñ rongoñ tuur nañ sax seen rongoñ ñoo la ñu leen di bàyyi saa saa ne ko ànd dañoo bëgg ànd ak yow géer yi yonte bi ne leen amuma ay fas yu ma leen teg ñu toog di jooy am na jigéen yoo xam ne dafa dégg ñu naan indi leen seen participation ci jihaad bi amul lu mu joxe yàlla kaa mayoon kawar bu gudd mu lëdd kawar gi def ko benn corde mu diw ci benn diw litt bi daal di kole mu lem ko ba guddi mu ñëw fëgg amir kooku ne koo kan la mu ne ko man la mu dégg baatu jigéen mu ne jigéen heure bi ah kii di duma ko ubbi xelam ne ko lu tax da ko ubbi mu am aajo ci yow yaay amirul muminin mu daal di ubbi mu ne loo dox heure bi mu ne damaa dégg rek ngeen di laaj participation jihaad bi ma amoon lu ma war a joxe ñu ne bismillah mu ne ko lii de sama kawar la laa dagg lépp ko dama bëgg ëllëg ngeen ngalaabe ko fas yi ñu xeex ci yoonu yàlla sama kawar laa dagg létt ko ma bëgg ëllëg ngeen ngalaabe ko fas yi ñu dem xeex pour kaweel kàddu yàlla wala ñooñu joxe nañ lépp ñun loolu lañ joxe ah dara foo déggee fi sabilillah sax da ngay dugal sa loxo sa poos loxo bi naan rombal cent cinq cent bi cinq cent la bi deux cent cinquante la bi deux cent la cent franc bi cinquante vingt cinq bi na dëpp nga jël dërëm bi mbaa ñaar dërëm bi deux cent wala wala waaw boo déggee fi sabilillah nga dugal sa loxo sa poos loxo bi danaa la rombal bii yi nga romb mu ne la pièce cinq cent bi romb ko rombal pièce deux cent cinquante bi rombal rombal deux cent bi mun nga romb pièce cent franc bi cinquante franc bi vingt cinq bi sax romb ko parce que am nga fi ñetti dërëm ñetti dërëm de soloon nga ci paas bi ñetti dërëm nga dindi ñetti dërëm yooyu joxe allahu akbar yàlla dafa ne la lan tanaalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbuun li ngeen bëgg du ngeen ko mën a am lu dul li ngeen cher la ngeen di gën a joxe li ngeen gën a bëgg ngeen di joxe allahu akbar benn waay yi dafa toog këram am ku koy laaj kuy laajte kuy laajte de ñëw ne ko damay laajte kër misaal kër saat fay laay laajte xam ngeen kër gi nu mu mel comme nga génn ci kër gi dugg ci kër gi rek mu jóg taxaw sol ay dàll ne ko nañ dem ma yóbbu la mu ne est-ce que mënu ko woon wax ne kër gii la ne ko nañ dem ma yóbbu la mu ñëw taxaw kooku dafa waaru sax fëgg ñu ubbi mu ne ko kii mooy saxaar fay daal di delluwaat këram gis nga waajooju bu mu sukuraatee xam nga lu ko yàlla fay ci loolu mu def dafa jékki-jékki mu xam mu ximiliku ñu dégg mu naan yaa layta kaana baida mu xamaat ximiliku ñu dégg ñu naan ñu dégg mu naan yaa layta kaana jadida mu xamaat ximil ko ñu dégg mu naan yaa layta kaana kaamila ñett la wax aka neexoon mu sori aka neexoon muy lu mat aka neexoon muy lu bees xam ngeen bi mu nee ak a neexoon muy mu sori mooy bis bu mu jëlee waa ji di ko yóbbu di ko woni li muy laajte noonu mu ko dimbalee ba waa ji gis ki mu soxla bi mu dee bi muy waaj a faatu yàlla mu ne ko xoolal kër gii laa la fay ci aljanna mu ne lu tuuti lii laa dox ñu fay ma li ak a neexoon muy lu sore sore sore sore sori yaa layta kaana baida ñu ne waaw yaa layta kaana jadida nag mu ne damaa gisoon benn waaye bu amul yére fekk man ay sagar laa amoon mu ñëw ci sama sagar yi ma jox ko ci benn yàlla daal di ma koy fay sundusin wa istabrak yére aljanna mu ne mag ak a neexoon muy lu bees yaa layta kaana jadida comme man lu màgget laa joxe ñu fay ma yére aljanna ak a neexoon muy lu lu bees ñu ne ko waaw lu tax nga ne ak a neexoon mu mat mu ne damaa wooroon ba ngoon may waaj a doon ma yor sama daggi tumburu boo xam ne fanaan na ñetti fan benn waaye ne sarax ngir yàlla ma ne ko am bi may waaj a faatu ne yàlla woon ma benn magasin mburu ci biir aljanna ne ma li yëpp yaa ko ma ne ak a neexoon muy bu mat mu nekk kilo comme daggit laa joxe ñu fay ma lii lépp kon su ma joxoon kilo lu may am wala ñooñu niñ meloon jàngeen histoire imam Ali ñaata fan la woor ñetti fan muy woor te du dog jour bu njëkk bi yatim moo ñëw jirim mu jox ko ndog bi deuxième jour jaam ñëw mu jox ko troisième jour ku ñëw ah miskinan wa yatiman wa asira prisonnier ku ñu tëj ci kaso daal di ñëw mu jox ko après mu xam alxuraan moo wàcc ah di ko takkal grade ci loolu rëy loolu mu def xoolal di woor ba ngoon doo dog nit bi ñëw naan la ngir yàlla nga koy jox sa dog gars yi dëgg-dëgg bu fekkee dañu bëgg tiyaaba du nekk fii rek di ko wax mais dañ koy jëf affaire yi ay jëf la ay jëf la du ay wax ñee dañ ko jëfa nga defa ne fii kenn ñu dina woor ba ngoon nit ne la ngir yàlla nga jox ko sa dog fekk yow dëgg du mburu nga am bu dee ngir yàlla kay da ngay sëgg wala minimum sax nga daggal ko ci tuuti ah saa yi fii lay xaw a néew de yooyu moo fi nekk tey waaye léegi dañuy sëg waaw bu dee booy di soo nga dégg waaye mu naan waaye fële laa ko kal laa wax dama ko aju waroo ko aju parce que sa mbokkum jullit la yàlla mun na ko mun na la natt comme ni mu ko nattoo benn waay dafa nekk këram di reer ak soxnaam bu fëgg bunt bi rek soxna si daal di génn ndeysaan daal di koy jox sarax bi daal di duggaat rek mu ne soxna si taxawal soxna si taxaw mu ne ko ar sa borom kër mu ne mu ngi ci biir mu ne nañ dem ma gis ko ñëw taxaw mu ne soxna si xàmme nga ma soxna si ne ko xàmme wu ma la de mu ne waa ji xàmme nga ma waa ji mu ne ko xàmme wu ma la de mu ne soxna si yow maa doon sa borom kër xam nga diw ndeke moom moo takkoon soxna si ah jamono neex mu doon foo topp àdduna di def lu ko neex ba mujj ñàkk amatul dara soxna si keneen takk benn bis benn waaye bu yelwaan ñëw mu dàq ko ci xaj toroxal ko waaye yooyu ne ko kon yow man la man moom man moom nga dàqoon man la man nga toroxaloon xoolal jamono soppeeku ba kooku ñëwaat takk soxnaam yaa ngi histoire Yuusuf Yuusuf ndax doon naatul buur ba ndax takkaatul jabaram gis nga àdduna bi jarul nit di fi ñaaw war a rafetal koo gis nga def ko comme sa bopp nii kii mel tey wala yonent bi nee na bu ngeen gisee sax ku yàlla natt ku yàlla natt boo ko gisee boo xëyee suba nga fekk fii saal bi nga fekk ay nit di fecc waroo waroo leen xas de dangaa war a wax alhamdulillahi alladi aafani mimma ibtalaahum yonent bu gisoon kuy raam wala ku cëram manqué wala ku naan sàngara maa ni di jayeexu danaan alhamdulillahi alladi afaani mimma ibtala maa ngi sant yàlla bi nga xam ne moo ma wéral ci li mu nattu kii loolu nattu la yàlla mën na la dévier léegi nga def loolu yonte bi gis na benn waaye bu naan sàngara gaa yi di ko dóor dóor yu métti ñii di ko yonte bi ne laa tuinu seytaan ala axikum bu leen dimbali seytaane ci kaw waa ji fexe leen ngeen récupéré ko waa ji ñëw na ci jàkk yonent bi saw ñu koy bëgg a rey ku demoon tey Touba saw fa lu ñu lay def ci biir jàkk bi wala Tiwaawan lu ñu lay def ah dañ lay rey de ah pourtant nit saw na ci jàkk bu gën ñaari jàkk yooyu te ngeen rey ko wala jàkk mi di Tiwaawan moo gën jàkk Touba Tiwaawan wala wax leen ci kaw waaw bu leen diraaj seen baar yi mais dina moo gën ah la chaque de yéen di doon toog ci jàkka jooju benn waay ñëw génne waay yàllaam saw sahaaba yi bëgg ko dóor yonent bi ne bàyyi leen jàmbur mu saw ba pare yonent bi ne subbu alal bawlil arabi subban min al ma sotti leen ci saw arab bi benn bàggu ndox mu sotti ci ba mu fees yonent bi daal di koy moom ne ko fii place bu sell la kenn du fi saw dégg nga boo bëggatee saw da ngay dem ci bërëb yële nga saw mu ne allahumma arhamni warham muhammada yàlla yal nag ma yërëm man ak muhammad keneen sama yoon nekku ci yonent bi ne ko dayyaqta alwaasiata xatal nga lu yaatu mu ne yonent bi lan moo yaatu yonent ne ko yërmande yàlla dafa yaatu mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mu daal di tuub nekk jullit gis nga kon mbokk yi yaakaar naa ne fukki tomb yooyu dina doy ñu tënk ko foofu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ëppoon na ko fa nag mais insha allah lii dina doy ñu jéem kenn ku nekk ci ñun boo ci am nga jéem koo xeex mu dañ ci sa bopp parce que mbir mi takku la ak taxaw lépp loo góorgóorluwul ci sa bopp doo ko am li fa lekk nga góorgóorlu ci sa bopp nga am jikko yu rafet yi nga am jikko yu sell yi waaye bu fekkee feebar yoo xamante ne dafay wàññi ngëm yàlla la foog nga taxaw ci pour mu dañ ci yow ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ko ci ñun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
alhamdulilah xanaa ñu daal di ñaanal mbokk bi nga xam ne moo ñu defal waxtaan bi di ko wax jazakumullahu xayran di ko ñaanal yàlla mu yokk xam-xamam yokk leeram amiin yaa di ko gërëm tamit ci xam waxtaan bi nga xam ne defal nañu ko mu waxtaan bu leer amiin yaa xëy na aussi jot bi moo ko mayewul wala temps bi euh, peut-être nañ ko bëggoon traité traité wu ko noonu léegi li ñuy war a mën a dugg rek mooy quelques questions ay laaj yoo xam ne dikkal nañu fi euh, jëm si sujet bi am na yoo xam ne tamit gis nañ ne amul toj si bi relation mais incha allah su dee jot may na ko rek ñu jëm ko tontu laaj bi si njëkk mooy kii day laaj lan mooy àtte lan mooy àtte ki nga xam ne dafa euh, bañ benn àtte yàlla boo xam ne maanaam lu nit lu yàlla daganal jullit bi bañ ko mu joxe si misaal lu mel ni polygamie muy am jab am soxna yu bari mu ne loolu lan moo ci àtte jullit bi
alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ci tontu laaj boobu bu ñu demee ci benn téere benn ifta yaakaar naa Ziynun moo ko def am na ci kenn ci borom xam-xam yi ku ne jigéen wala góor ku mu mën a doon bu bañee benn àtte ci àtte yàlla yi dafa murtat ñu ne ko lu tax lan mooy dalil bi mu ne zalika bi annahum karihu ma anzala allah fa habata allahu amalahum ndax ñoom dañoo bañ lu yàlla àtte lu yàlla indi dañ koo bañ yàlla daal di yàq seen jëf kon ab julit mooy koo xam ne danaan sami'na wa ataana lu yàlla daganal nga daganal lu yàlla nangu nga nangu lu yàlla tere nga bàyyi waaye yàlla wax dara nga naan ah waaye daal dëgg-dëgg loolu ab julit du ko def dafa bokk ci principe yu lislaam yi arkaanul islaam yi xawaayidul islaam yi yépp ngay nangu nga nekk jullit soo ci weddee dara baa nga bàyyi ci dara yow nekkatuloo jullit kon te yooyu day dafa nekk ay feebar yoo xam ne suñu jullit yu jigéen yi dugal nañ leen ci ba da ngay dégg jullit bu ne man de wujj rek laa bañ kon de bañ nga lu yàlla daganal lu yàlla bëgg yow kay da nga naan su ma koy am yàlla na ma yàlla may ku ma jubóol del ñaan loolu comme yàlla mooy maye ñaanal loolu waaye nga naan yàlla na loolu kenn du ko def ab jullit du def loolu asalaamaaleykum
alhamdulilah euh, ñu dugg si ñaareel question bi ki day laaj lan mooy àtte ki nga xam ne du julli julli mbooloo maanaam xam naa góor la ñu nam daal démb démb lislaam nañ lan doon xàmmee naafiq yi mooy duñ julli julli mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna min sunanil huda as-salaatu fil masjid bokk na ci sunna yonent bi mooy ngeen dem jàkk su ngeen bàyyee dem jàkk bàyyi ngeen sunna yonent bi su ngeen bàyyee sunna yonent bi réer ngeen julli bu góor day dem jàkk démb saxaaba yi nu ñu doon xamee naafiq yi mooy duñ dem julli ji mbooloo kon dafa bokk ci màndarga naafiq ah du julli mbooloo ku dul dem julli ji mbooloo naafiq nga
alhamdulilah euh, ñetteelu laaj bi ki day laaj lan mooy àtte ki nga xam ne mi ngi jàng alxuraan di def zikr te du ànd ak tadabbur maanaam du xam lan mooy sens yi nga xam ne mooy sensu baat yi muy wax wala alquran bi muy jàng
mun naa am tiyaaba mais tiyaabam day néew yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa xaaj jànkatu alxuraan yi daf leen ñett ñenn ñi mu daal leen misaal comme garab goo xam ne dafa am meññeef xet bi neex lekk gi neex keneen ki kooku mooy kiy jàng alxuraan di ko settantal di ko jëfe mu ne kooku mu ngi mel ne misaal garabu màngo màngo lekk gi neex na xet gi neex na mu ne keneen ki mu ngi mel tàndarma mooy koo xam ne day jàng alxuraan rek bëgg na alxuraan rek mais du ko jàng kooku lekk gi neex neex na mais amul xet mu ne keneen ki mooy koo xam ne mu ngi mel ne utroja amul xet amul ñam ba pare fees de lëkki dëkk kooku mooy ku dul jàng alxuraan bëggul alxuraan bëggul ku bëgg alxuraan xamul alxuraan sax mooy lan loolu yàlla na ci yàlla musal maanaam di jàng alxuraan di def zikri te doo def tadabbur du def jeexital ci yow du def jeexital maanaam wax yi ci kaw rek ngay am te yow affaire dafa war a jeexital ci yow te loolu loolu la islam bëgg waaw même boo dee am tiyaaba tiyaaba yi du bari parce que du jeexital ci yow te yow da nga war a def li nga xam ne day jeexital ci yow jàng ko nag baax na trop xëy na nga koy jàng nii ak di def zikri yi xëy na soo góorgóorloo di dem yàlla mën na la dimbali nga am tadabbur boobu te ñun ñëpp ci loolu lañ war a góorgóorlu yàlla na ko yàlla defal
jazakumullahu xayran ñi day laaj ci laaj bi jëm ci fiq ñuy laaj mu ne ñaari rakk yi nga xam ne moom la ñuy julli avant fajar mu ñaari rakk fajar yi ñuy julli avant suba mu ne maanaam soo biddantee nga yeewu di ko julli lu mel ni huit heures wala neuf heures mu ne ba xam da ngay julli ñaari rakk fajar yi toog ci teg ñaari rakk da nga julli da nga julli faratay ba pare nga doog a fay fajar bi nga julli suba bi ba pare nga doog a fay fajar ndax léegi farata bi moom ngay jiital sunna bi moo doon jiitu mooy bi nga yeewoo ñu wax asalaatu xayru minan nawmi nga julli fajar après nga julli suba léegi nag biddanti nga suba ngay njëkkee doog a teg fajar
jazakumullahu xayran kii day laaj euh, lan mooy àtte ki nga xam ne ku góor gi maanaam wala ku jigéen ki nga xam ne day nuyoo ak moroomu jigéenam te mu ne du ci am benn bànneex te amul tamit beneen xel bu ñaaw ci ginnaaw joxe loxo boobu noonu.
non loolu complexe la rek dañuy sóob rek góor góor dong la góor góor dong la këriñ du jaaru këriñ courant bi lu ko tàkkaloo ñaata fil la ah ñaari fil la bu góor biñ laalantee lu xew wax leen dëgg bi ah voilà naan ay man du ma laale jigéen ay sóob la benn ngoog ñaareel bi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que nit mun na xalaat ne mun na nuyu jigéen ba pare xelam nekk ci jigéen boobu ah kon moo ñu gën a ragal yàlla n'est-ce pas du dëgg defa ko bu fekkoon loolu dong la kenn dox yonent nuyu na jigéen bi ba pare xelam nekk ci kon mun na nuyoo ñu ne xelam nekk ci parce que moom fi mu nekk nii boo gisoon benn sëriñ bu mag sëñ Mansour wala sëñ Salim nuyu benn jigéen est-ce que sa xel dina dem ca xelam ak ci moom xam nga sa xel du ci dem n'est-ce pas parce que da nga naan ñii ñu baax lañ kon nag waxuma laa keneen yonent bi xool ni mu baaxee waaye terewul mu ne inni la usaafihu nisa du nuyu jigéen sunu diine ji nuyu jigéen bokk ci nuyu jigéen daal mooy yemal ci asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne la waaleykum salaam wa rahmatullah bu dee jigéen yemal ci asalaamaaleykum wa rahmatullah góor gi yem ci waaleykum salaam wa rahmatullah amaa joxante loxo yeneen yi ci teg yëpp ay sóob la du dëgg ku fi nuyu jigéen bu demee nga gis muy xool ci suuf ak ay booy loxo bi booy loxo yi nooy na de ay sóob la
jazakumullahu xayran kii day laaj lu jëm ci mbiru atte yi nga xam ne moo jëm ci solo mu ne masalan tubayu góor fan la ñu war a yem ci solo waaw foofu coow yu bëri dafay ñëw ci diggante mbokk yi guddal tubé yi gàttal tubé yi nit munta am munta am sunna lépp te daajalewul xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey mënoo am sifatu salaatu nabi te dajale woo xadis yi wax ci julli yëpp n'est-ce pas xadis yi wax ci julli yëpp il faut nga dajale ko mënoo am sifatu wudu nabi sallallahu alayhi wa sallam te amoo xadis yi ciy wax yëpp lu ëpp ci ñun dañuy nag ci ñaari xadis benn xadis téye ci li ci bëgg dee xadis yi dañu ne am na bu ne na nga yemal ci sa yeel am na bu mu ne na nga yemal ci sa dojor mu ne ku diri sa yére yàlla du la xool yowmal qiyaamati coow li foofu la nekk ku diri sa yére beneen xadis bi mu ne ku diri sa yére di ngistal yàlla du la xool yowmal qiyaamati Abu Bakar ne ko yonent man mënuma loolu da ngay dégg sax yenn saa yi nit ñi di layal kooku di wax Aboubacar loo xam ne waruñu ko wax yenn saa yi ñu ne Aboubacar ndiggam dafa sewoon kan moo bëgg fi ñu ne papaam ndiggam dafa sew maanaam nit ki waroo bëgg lenn bay bay bay lay lu amul nañu wax rek lu am yonent bi saa salaam dafa ne Aboubacar yow bokkoo ci ñi koy def ngir ngistal nit ki mën na def tubéy bu gàtt ngistal mën na def tubéy bu gudd ngistal ñu def attention ci loolu bu baax l'essentiel que yonent nee na bul diri sa yére mu ne képp ku diri sa yére yàlla du la xool yow mal qiyaamati loolu moo ci ëpp ëpp solo xadis yi soo ko bëggee tënk lépp da ngay dajale xadis yi nga am xadis yonent bi alayhi salaatu salaam ci yére nu mu doon solo nga dajale nu mu doon jullee nga dajale nu mu doon jàppee nga dajale nu mu doon wooree nga bañ a jël rek benn xadis parce que du benn dafa bëri di nga gis téere bu toll nii ci lan lay wax sifatul wudu nabi yonent nu mu doon jàppee kese nga ñëw ci benn ñu ne la xas na loxo ñetti yoon nga ñëw fii ñu ne la gàllax ndiku na sarax ndiku fiiru ci benn benn ndox la ko defee xam nga ñun fii nit buy jàpp day raxas gémmiñ ñaata yoon dugal ndox ñaata yoon génne bakkan ñaata yoon yonent bi saa salaam benn ndox loxo la ko doon defee danaa nii boole gémmiñ ak bakkan génne benn dafa nii dafa nii benn guux bi la ko daan defee gémmiñ géeg bakkan yi benn guux la ko daan defee gis nga nga dem ci benn hadis ñu ne yonent bi saa sallam sëlmu na ñetti yoon am riwaaya yu ne sëlmu na ñaari yoon am na ñu ne jàpp na benn benn Ousmane nee na maa gis yonent bi saa sallam mu jàpp jàpp benn benn kon chaque jour diine boo ci buggee am dara da ngay dajale hadis yi soo ci dajale hadis rek di nga xam lan nga ci war a def ak lan nga war a bàyyi li ëpp ci ñun nag mooy dañuy jàpp ci benn bàyyi yeneen yi te loolu jaram mooy tindiku la
jazakumullahu xayran kii day laaj lan mooy àtte ki nga xam ne day def masturbation maanaam di wut bànneex si loolu dañ ko tere ci diine yonent bi saa salaam nee na képp koy def yowmal xiyaam sa loxo bi nga koy defee dina ëmb yonent bi nee na képp koy defee sa loxo wala nga koy defee ci sa benn cër cër boobu nga koy defee yowmal xiyaam booy dekki day ëmb kon islaam daf ko tere
kii day laaj yan mbir nga leen mën a digale pour faj feebar bi nga xam ne mooy feebaru imaan boo xam ne mooy ci la
dooful imaan wax naa leen bi ñuy tàmbali waxtaan bi ne ngëm yàlla dafay yokk dafay wàññiku ngëm yàlla li koy yokk mooy nga yokk sa jaamu yàlla daawoon naa fi la guddi fexeel nga régler sa portable cinq heures bu jotee nga jóg minimum cinq heures bu jotee nga jóg naafila lu bon bon nga naafila ñaari raak fexeel bul génn sa biir néeg lu dul jàng fukki aay alxuraan fukk ak juróomi aay ñaar fukki aay alxuraan boo mënee jàng fisib nga jàng fisib moo gën fexeel weer bu nekk nga wàcc kaamil bi benn yoon bu fekkee ne mën nga liir alxuraan fexeel ngay woor lundi mbaa ngay woor jeudi fexeel ngay woor trois jours ci weer wi le treize le quatorze le quinze ci calendrier musulman fexeel boo amee loo saraxe nga saraxe fexeel ngay tudd yàlla ngay def askaar yi ngay def askaaru sabaax wal masa yii boo ci takkee da ngay am ngëm yàlla insha allah ci kàttan yàlla
kii day laaj ban comportement le frère yi war a am ci kanamu sœur boo xam ne wala frère boo xam ne dañu gis ne kii kat imaanam dafa wàcc te ban comportement dañ ko war a jàppale dañ ko war a soññ jàppale ko ñaaxaat ko bañ ko bàyyi yenn saa yi nga gis sax benn sœur bu doon góorgóorlu ci diine doon teg kaalaam yenn saa yi mu daal di dindi kaala bi yenn saa yi ñu gis benn frère bu doon góorgóorlu di julli dem jàkk di daal di génn nit ñi daal lay boycotté bàyyi la rappeur yi daal lay jël ñoom waaw ñun waruñu def loolu nga gisal sa benn mbokk ñi imaan bi da wàññeeku demal nga waxtaan ak moom kole leen ko jàppale leen ko xëy na situation la xëy na problème la xëy na nangam ak nangam la xëy na seytaane moo ko ëpp doole ngeen jàpp ko indiwaat ko ci góor ak jigéen kenn du fekk sa mbokk jullit tarxiis wala dem safara nga koy seetaan bu demee safara yow bokk nga ci ñi ko yóbbu
alhamdulilah kii day laaj lan mooy comportement maanaam benn frère buy dund sunna nekk ci classe am te moom rek moo ko fay dund mu ne ban comportement la war a am ci comportement ci mbir yi nga xam ne moo koy am maanaam caaxaan waaw war moom bu njëkk warul tëju warul tëju bu du am ak kenn relation naan ñi ay jaahil lañ wala ay jaddo lañ wala ay yéeféer lañ mu def moom boppam jullit mooy ku set mu daal di taxaw fële isolé wu kenn du ñëw ci benn société boo xam ne société bi dañoo alku nga leen di seetaan maanaam war na ubbi ak ñoom war na am ak ñoom ay relation waaye war na fay jàllale diine période bu nekk ak occasion bu mu am jàllale diine bu mu bàyyi mu dem mën na ko exploité na leen di ziyaare par kenn kenn groupe mbooloo loolu mooy li nga xamante ne moom la diine santaane yonent alayhi salaatu wasalaam gis ngeen bi ko yàlla yónnee màkk noonu la doon def yenn saa yi mu invité sax ci këram togg ay lekk yenn saa yi mu génn seeti kenn ah kenn nit ci sa classe waneel jikko yu rafet borom xam-xam yi day wax kunu lana du'aatu saamitiin mën nga nekk wootekat sax bu noppi mun naa classe bi doo yenn saa yi sax doo waaraate doo wax diine mais nga nekk waaraatekat boo xam ne da ngaa noppi ku la gis rek classe bi bu doon def lu bon day bàyyi la ñu def xam nga yenn saa yi nga yor yenn melokaan yi wala yenn jikko nga gis benn waaye di tox cigarette bu la gisee nu muy def day nëbbu cigarette bi ma nga jàll eh yaay sëñ bi gis nga xaw a gis nga maa yooyu dafa am importance dafa am solo loolu nag li koy waral mooy nga am ak nit ñi relation bu rafet soo nekkee ci benn classe dafa jàng nga tëju faale woo kenn jàpp ne nit ñi safara la ñëw yow yaa dem àjjana yow yàq nga classe boobu
alhamdulilah si ngi laaj nan la nit mën a def ba mucc si ci ci feebar bu gëm muy ay xaddis wala ay aaya yoo xam ne mën a taal moom wax naa ko sànq askaaru sabaax wal masa ay aaya la ak ay hadis xiyaamul leyli ay aaya la ak ay hadis woor aaya la hadis moo ñu ko sant yonte saa salaam dañ ko ne lu tax ngay wër lënd mu ne ci laa juddu ñu ne ko lu tax ngay wër jeudi mu ne ci la yàlla di gaaral jëfi jaam yi damaa bëgg yàlla xool ma bis boobu daan may yërëm ah yonent bi moo digle nañu war ayaamul biid le 13 le 14 le 15 yonent moo digle saa ñu xëy suba war nañoo jàng alquran mën naa jullit warul xëy soobu nga bëtam yi tegul ci alquran yonent bi moo digle xiyaamul layl kon loolu ay aaya la ak ay hadis loolu mooy yokk ngëm yàlla saxaaba yi loolu moo yokkoon seen ngëm
kii kii ñi dañuy laaj ñu ne nan la le fait que ngay fréquenter nit ñu baax euh, ak di jege ak ñoom te yàlla tax ak lu mel ni di fréquenter jàkkaar yu demee noonu ak seeti say mbokk ak yooyu mais nan lay yokkee euh, sa iman
jàkk mooy place bi nga xam ne dafa communiquer ak asamaan bi leeru yàlla dafay wàcc 24 heures sur 24 jàkk moo tax yonent gis nga lii ñuy def nii ci jàkk ji lañ ko waroon def yonent bi alayhi salaatu salaam jamono amoon na ay terrain wala amul ay terrain ah amul ay bayal amul nay kër wala amul ay kër est ce que mënuñu woon mbaar ci mbedd yi dafa def lépp yonent bi ci jàkk ji la daan defee lépp al masjidu muntalaqu daawa woote yàlla mi ngi déparé ci jàkk te gis nga jàkka leer gi fa nekk nekkul ak feneen moo tax yonent bi wooteem am solo parce que yépp jàkk formation bi jàng alquran jàkk bi la jàngale xadis yi jàkk bi la ah takk sëy yi ci jàkk bi la waaraate bi ci jàkk bi la jàkk yonent bi alayhi salaatu salaam lépp la woon ñu daan dem guerre sax ñu leen di gaañ ci jàkk ji lañ leen daan faje ci jàkk ji la ñuy loose ba wér doog a ñibbi seen kër kon jullit bi di dem jàkk di fa dégg kàddu yàlla di dégg bayaan yi di dégg waaraate yi di dégg waxtaan yi dañu ko ngëm yàlla xam nga li tax tey nit ñi amuñu ngëm yàlla suñu jàkk yi kenn du ci waaraate allahu akbar asalaamaaleykum tëj boo xawee yéex ci biir sax ñu tëj la ci jàkk bi bàyyi la foofu waaw dëkkoon naa dëkkoon naa ak sama benn pap dañu julli timis ba pare mu reculer ci ginnaaw dinaa fi la ñu tëj ko ci biir yàgg ji mu toog ci biir dinaa fi la di julli ba gee jot ñu tijji fekk ko mu toog ci diggu jàkk alors biir yàgg ji lañu tëj gaañu na génn naa dina yàlla na ko yàlla yërëm kon ak jàng alxuraan nga dem yor sa jàkk yor sa kaamil dem dugg ci jàkk ji toog ubbi sa kaamil jàng alxuraan walla loolu ni mu réyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jàpp sa kër nga génn jëm jàkk bi nga ñëwee ci dugg jàkk ji nga dugg dem sàppe premier nga toog julli ñaar ràkk toog di xaar julli gi yàlla dina la envoyé ñaari malaaka ki naan yàlla baal ko ki naan yàlla jéggal ko te jullee guddo ah yooyu kon kenn war ko xeeb waaw loolu mooy yokk ngëm yàlla doomu aadama gis nga ñun yi ñuy xeeb saxaaba yi daañu ko xeeb saxaaba daañu ko xeeb dangay dégg julli tabaski julli korite yonent bi ne bu ngeen di ñëw jaar leen yoon bi bu ngeen di ñibbi jaar leen yoon bi ñun tey nag seen yoon nekk ci ñun suñu yoon nekk ci lu tax loolu saxaaba yi ñoom dañu ko doon def xeebuñu ko lu tax ñun ñu koy xeeb parce que tiyaaba la leen di yokkal parce que yonent du leen digal loo xamante ne duñ ci am tiyaaba imaam Ali dafa mar naan mu ne may la ma naan ñu ni ko dox mu teg guub daal di muuñ mu guuxaat muuñ mu guuxaat muuñ ñu ne waaw i Ali mu ne nii laa gisoon yonent bi def ma def ko nii laa gisoon yonent bi di buy naan mu def day teg teg gi teg teg gi teg mu nekk ñett mu ne loolu laa gisoon mu def ma def gis nga ñoom kon dañ doon topp na yonent bi ci lépp lu muy def ndax xam nañ ne tiyaaba lañ ci am
alhamdulilah kii mi ngi laaj yaakaar naa sër la bu muy boobu mooy laaj bu mujj ah boo testamante.
non boobu rek mu mujj mi ngi jot na oui
léegi mu ne le fait que nga bañ a marié parce que yaa ngi indi soo marié di nga ëmb te loolu mën na yàq sa jàng wala mu gàllankoor la si say études daal mu ne est ce que loolu imaan bi wàcc na wala nan la si islam nan la koy déggee daal.
ah en tout cas mariage moom yàlla moo ko diglee te forcé wul kenn pour mu sëy forcé wul dafa ne góor ñi ku ko mën defal jigéen ñi ku ci mat boo gisee ku la bëgg nga dem sëy ak moom léeg-léeg nit ki moom mooy planifié mu fekkee moom loolu moom moom mooy objectif am moom la bëgg loolu mu mu toog ba jàng mais chaque jour borom xam-xam yi dañuy tere loolu am na benn xale bu jigéen ci Arabie Saoudite papaam da ko ne woon kenn du la tàkk lu dul nga jàng ba pare fekk moom dafa bëgg sëy mu gis ku mu bëgg kooku ñëw ñaan papaam mu ne du ma la may lu dul nga jàng ba pare affaire bi jàpp ko mu ngi jàng mais affaire bi jàpp ko mu feebar mu tëdd hôpital mu sukuraat mu ne papa tàllal sa loxo ma ñaanal la loxo ji daal tàllal mu ne maa ngi ñaan yàlla ni nga ma xañee ni nga ma xañee bànneexu àdduna yàlla na la yàlla xañee noonu aljanna après mu génn àdduna kon kenn ku nekk xëy na am na koo xam ne moom mun na téye boppam kon il faut mu sëy am na koo xam ne xëy na mun na téye boppam l'essentiel que mbir yi du lu ñuy dirisi ne sa yow ba pare pour ay nekkaale ah di seeti góor yi jàmbur yi wala ngay seeti xale jigéen yi jàmbur yi munoo régler te nee na ku mënta takk jabar wooral yaa ma'ashara shabaab man istata'a minkum albaata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm ñu ne lu tax ñuy woor mu ne koor mooy dagg bànneex yi bànneex yi nga xam ne soo woorulee da ngay soxla jigéen wala da ngay soxla góor koor mooy damm bànneex yooyu kon en tout cas ku bëgg sëy mën nga sëy soo mënee islam moom forcé wul kenn waaw dafa am ñu mu nekk sëy dafa am ñoo xam ne farata la ci ñoom am ñoo xam ne sunna la ci ñoom am ñoo xam ne mustahab la ci ñoom am ñoo xam ne makruh la am ñoo xam ne sax sëy araam la ci ñoom aywa léegi nag kenn ku nekk na xool foo bokk
alhamdulilah ah dese woon nañ fi ay laaj waaye comme ni non yooyu yooyu nañ ko leb ba beneen yoon quoi incha allah incha allah kon rek ñu ngi jawli ñaan di gërëm di gërëm ñoom di baax yàlla ñu defal ko ak ñoom itam salaamaaleykum wa rahmatulah.
subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الطاعة